àgg naa ñoom ba xamal leen ne daal dana leen may bët ak euh, nopp amu ci kenn koo xam ne dina ko bàyyi ak boppam euh, lu ci nekk rek dana ko saytul boppam dana ko nemmeeku ndax euh, dafa yëg ne lii réew mi teg ci loxoom lu ko ñor la te fi mu ne faaw mu tegu ci aw yoon wu jub mu koy mën a sottalee dégg nañ tamit wàllu sport sport moom ndaw koo ci laaj daanaka ndaw ñi moom luñ la wax mañña duñ la wax diine euh, sport rek lañ lay wax. looy hmm. mel ni ñoom euh, seen yëg-yëg dafa gën a ràññeekoo ci wàllu sport yi tàggat yaram dégg nañu waa jooju. Hmm. kii wax la ci wàllu football ba tudd Cristiano Ronaldo kii tudd wàllu làmb xam ne ku ci nekk rek ak limuy seenu séenu euh, ci yéenekaay waaye gis nañ tam ay xew-xew yu bëri am suuf soo xam ne dañu koy jëfandikoo ci anam yu jaaduwul fa mel ni technopole. Hmm. am ñu bëri ñoo xam ne guddi lañ daal liggéey ñu fekk leen fa doon dagg suuf si lu ci nekk rek. yéenekaay yi ñu ngi koy nemmeeku nag di ko wax nit ñi di ko di ko dégg mu mel ni daal saa yoo xëy rek di nga dajeek lu bees lu feeñ ci yéenekaay yi. Euh, mbirum suuf yi mu mel ne euh, wii ak noo boobu ñu fi voté woon am na lu ñu ci bëggoon a le est-ce que loolu ñu appliqué woon ko gënuloon a gaaw pour nit ñi ñu dellu jël seen moomeel ci suuf. Mhm. Euh, ba caxat caxate gi ñu ci wax wàññeeku. waaw xam nga ñoom jafe-jafe bi njëkk am mooy mandargaal suuf. Mhm. ndax suuf ngir mandargaal ko léegi yombul. ndax ku jóg ne maa moom loolu am ñoo xam ne ñooy ñooy wër di joxe ay ay pàkk ci ay coopérative dañ leen di xàllal fenn rek ñu ne euh, li mu doomu aadama ñoom lañ daggal fii nga xam ne kon gars yi dafa mel ni nañ daan def démb ak barki démb ci mandargaal suuf suuf soo xam ne da koy donnee ci sa maam wala nga xam ne suuf si sa askana ko moom loolu léegi amatul léegi su ma suuf taxu xawma nit ñee taxu <coughs> waaye foofu dem fekk fu suuf soo xam ne ña fay dëkkee léegi du bokk ak ña cosaanoo ak suuf soosu d'accord jërëjëf euh, Fallou moo ñëw ci sëñ Fallou. ah tuutal nga ma de. <laughs> waaw noonu la mën a demee. jëkk ci Fallou dem ci sëñ Fallou. Fallou du tuuti nel bàyyi loolu rek. ah, ah. Fallou du tuuti. non logique gee tax damaa xam li logique yi xam nga dafa dafa dafa wàcc àndam moo tax. sëñ Fallou nga Touba. <laughs> ah waaw mu nga Touba. loolu maa ko wax mais Fallou ngi fii DTV. sëñ Fallou ngi jàmm gën ak DTV sëñ Fallou salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. mbokk yi noo ngi leen di nuyu. ñi ma bokkal jotaay hmm leen jottali it sama mbolo fama and bok bokk muy waa Kipango wolof wolof ñuy taxawu làkk wolof ci njiital sulayman ñang ak taxaw sulay euh, usman Lo sama di nuy ñep nak di nuy sama dom fele ci Seynabou sise fele def na xam nga ko de Seynab Seynabou Seynabou sise mhm. ah, fele ci yéen wa sama sey mhm. demal mhm. mang fa de mang ñangal bu ma koy ah mang ñangal nga ko bay fek mu ñangal kat di wax kii nag ne ko. yow amoo tonton. yow da ngaa rafle tonton. kii mënul ne sa tonton ma ne sa tonton kii ne sa tonton loolu yow. Ah, waaw ndax loo man dama tiit dama xaw a. man um sax tonton Fall la man moromam la bu la <laughs> moromam nga ci biir da weddi di kat ne la tonton. tonton bu lay wax tonton. damay jàngale préscolaire moo tax xale yi ñëpp tonton lañ leen di wax. xale yi laay tonton bay boo nga jéem a dem lycée. <laughs> kii bu dee sa tonton amagoo dara. non ñoo maase maa ngi moom bokk maas ñoo bokk génération. bu lekk sama tonton rek wàññiwul dara. non loolu sax di dis ci man. man moom tonton la am. léegi eh, <laughs> eh, nit bu fekkee ne bu defee lu baaxul da nga naan déet. Mm-hmm. bu defee lu baax da ko naan waaw. Mm-hmm. dëgg la yàlla wax dëgg. man ñëpp laa yemale ku dégg nga def lu baax dama naa waaw yi digle na njiit nag noonu lay def waaye na ko gëm moom mhm. gis nga nit da daan liggéeyloo nit noppi duma ko liggéeyloo nit ba noppi duma ko lu tax ay ca gaawal mhm. boo déggee olof di la waxe jaajëf waay mhm. ñu yàq naa jaajëf mooy yow liggéeyoo jaal ci jëf ji def ci sa xel yaafus googu mu tere bis bu ci jàppoon ministre bu yaafus duma ko tëj ko fii ni ñuy def ñu dubati yi léegi ministre yi benn kenn dutu yaafus wala eh, président Ghana bi xëy rek di ko fekk gars yi fi ñu ne dañ doon raam Senghor daan tëdd ba guddi mu jóg di xool di seet gars yi <coughs> sol leneen yaay jàmme daan na ko def daan na ko def président Mali bi defu ko fi bett leen hmm. waaye koo xam ne boo xasee toog rek defe na yow yaay yaay Macky bakki bu toogee dafay mooy yàlla kële def ko nekk def sa bopp déedéet nañu respecté peuple bi du leen jox suñu xaalis ne leen liggéey loolu ñu ne fi di foo comme bu mbaay moo ci gën a neex nag ministre buñ ci woo ak làmb ji bul dem mënu leen noo représenté am na koo xam ne bëggut làmb te ministre am nga bàyyi leen làmb yeeg ministre musique yeeg yooyu te te ngeen liggéey ah mm-hmm. ñëw leen pour ngeen noos dañu ñëw ngir ngeen liggéey ki leen ki ñuy fal nag jox ko ne ko yow moom fal na leen mm. wax na leen acca jàmbaar ca waar li wax nag rafet naa mm-hmm. nañ waxante dëkk mm. bàyyi leen bumbaay mm-hmm. bàyyi leen yaafus yaafus mm-hmm. bàyyi leen absence absence te mooy dénkaane sa bos ak gaayaan fa mu wute absence moom bari na dafa bari wute absence tardé wala bu ñu wootee ci député rek ñaata ni ñu war a toll et yi ñëpp a ñëw ku ñëwut ñu sanctionné la wàññi ko ci sa salaire dëgg la mais mooy yoon loolu mooy dëgg ah. dëgg la mu bañ a wax ci yem ci wax rek mais mu yegg ci jëf. Mm-hmm. nga xam ne dañuy wane bon exemple ci. Mm-hmm. ku def lu maanaam rafet na dëggu ko gën. Mm-hmm. macha allah ku def lu mu war a war a def ñu jaajëfal ko ci kanamu askan wi yëpp keneen ki tamit ñu wane ne kat deful lu mu war a def loolu defe naa mooy li gën a am solo. tonton Pape Omar gannaaw nuyoo bi këru yëglekaay yi. waaw nuyu naa la oustaz Makhtar bu baax euh, noonu laa nuyoo itam euh, sama jarbaat <laughs> Birama. Euh, di nuyu professeur Fallou Cissé ak Fallou Sène. Ah, man de génn naa man <laughs> man moom man sama jarbaat la di am mbégte nag wax dëgg yàlla bokk plateau ak euh, professeur fallu mhm. yaa ngi wax léegi ni dina jubbantu ñu bari waaye xam naa ci paa lay commencé bu yemoo yore yatam rek xam ne dina am paa sëgg boo xam ne mu dóor ba doy la. bi moom macha allah déedéet dina dóor ba doy euh, di nuyu ñëpp ñuy seetaan di leen jox itam nuyoo waa Tëngéej. Mhm. dafa naa euh, euh, yenn kaay ni mu indi ñaari cëpp solo wax nañ ko muy lu jëm ci affaire technopole waaye foofu itam damay wax ni négligence état itam am na ci euh, tey jii dafa naa ne ñoom am nañ ay renseignements généraux bu mat sëkk bo xarañ nag boo xam ni nguurub Macky Sall gi luñ ci laaloon rek wala luñ ci doon jéem a laal timis balaa géeyoo mu yëg ko kon itam war nañu fexe ba euh, lu mel ni du ñëpp dañ koo bokk. lu mel ni technopole. mu nekk zone boo xam ne kenn waru ko laal. ay nit di ko tabax di fa indi ay projecteur di ko liggéey guddi ba commencé def ay fondation ba léegi Macky di ko doog a yëg bay doog a am na tamit benn sàggante bu ci am. beneen bi mu jëm ci euh, daje bu njëkk bi nga xam ni euh, ministres yi def nañ ko. sëñ Fallou wax na ci lu am solo. wax ni wax dëgg yàlla def na lu baax wala boog digle na lu baax mais man li mu daanele moom ma intéressé mooy na ci njëkk moom. te pour mu jëkk ci nag il faut que ñu génn politique politicienne wax dëgg yàlla. Hmm. foog foog loolu génn ci moom. tant man damay wax ni Sénégal tant ñoo ngi am président boo xam ne parti moo koy fal pour que ñu changer doxalin dana xaw a jafe. Hmm. parce que parti fu mu toll day politique pour ay nit. nit nag soo leen bëggee ut kenn ku ci nekk ci la mu bëgg rek nga koy oo. Hmm. kenn ku ci nekk bëgg rek nga koy meebe. <laughs> kon moo tax dinañ meeb nit ki ci ku nekk. danaan ki bëgg sabar ki bëgg làmb ki bëgg course ki bëgg caaxaan ñu meeg ko ci pour am ko kon il faut que ñu jël politique bi teg ko fële pour que loolu wax moom pour mu gëm ko doxal ko il faut que mu loolu loolu am Fallou wax na itam tamit te ñu sanctionné nag c'est très important am na solo mbumbaay bi itam nag ñoom nañ ci jëkk a jub nañu wàññi séminaire yi ak dîner de gala yi waaye nag fañ ko war a jëkk tàmbali dama bëggoon ñoom mu génn décret wala lu mën a doon ni kuy defati sa na ci génne ñoo ngi koy dara jaale chef d' état ak premier ministre ak ministre sàngam nañ leen ci génne wax ba nga xam ne kuy xalaat def manifestation wala say caaxaan di am ñeneen ñoo ko tudde waaye doo gis ñuy dénk àllu réew mi ñu nekk ay kilifa nga leen koy tudde te ñooñu bu ñu ñëw ni yónni seen i géwal wala seen i xarit ñu tiim baatare ba seen i xool sedd buñ ne dañuy tere dara dañu loolu jëkkuñ ci du dem fenn mm. buñ ko defee tey bu subaa ñun ñuy jiite def ko mm-hmm. te nangu critique bu ci mënti juddoo nag ñu nangu ko waaw mais duñ def ndax ñaare lu mel noonu boo ko yëkkatee ñi doon dund ci loolu ñëpp jug nañ def bolok wane ne daf ñuy delloo desal ginnaaw ak mel noonu mais da ngay da loo dëgg mën mhm. ku am loo dëgg mën te mu doo gestu waaw mooy kilifa day am fit day am fit am fayda am fayda c'est pour wane ne lu mën a nekk la xaw ma ba léegi mi ngi amam déet mais hôpital euh, euh, Diamniadio bi ñuy fajee xale yi mhm. ay jamono directrice moo fa nekkoon xaw ma ba léegi moo fa nekkam déet mais dafa ñëw indi ay euh, dogalam yu yu yees mhm. ku ñëw di liggéey si heure bi nga dugg mooy da nga heure bi nga pointé mhm. da ngay wax heure tel la retard yi nga am bu weer wi dee dañ la koy dagg mhm. ah, waaw liggéeyu ko mais nee na bi nga ko appliqué amoon naa ku ma jege ku fa doon liggéey mais nee na amul kenn ku ñeme mujj gi tardé te hôpital bi ñëpp daan tardé. dëgg la kat dañuy jàpp ne kooku baaxul. kooku dañ naan xamoo lu ñu doon wax. Hmm. non kooku moom dafa weex. dafa tàng directeur bu bees directeur ba bees. garab nit bi weex. kooku baax mu ngoog. <laughs> léegi nag yu mel noonu tey dana métti ci ndoorte li. Hmm. mais dafay am lu muy dugal ci bopp nit ñi ah hmm. yii. buñ tardé dañ ñuy dagg de. kii bokk la ka nekkoon de. maanaam dana métti ci bu ñu déparé waaye après njeexit li. ñu mujj ga lépp njëriñ lay doon Oustaz Birama mhm. yëglekaay yi waaw yëglekaay yi di xanaa mbokk yi liñ ci ñëw euh, comme dafay tere ma wax nijaay kon li si mbokk yi indi eh, man nijaay laa bëgg amat fi li ma si ma si yokk rek mooy mhm. lépp loo ragal ay aywa dawal jàmm ja mhm. bu fekkee ne danga jiite nekk ku jiite ay nit yilif leen ragal looy ñàkk mooy waral yenn yi di daal ñuy jiite nga mbooloo aljamaatu summun qaatil la mag ñi di wax mais mbooloo miy reyee mooy mbooloo mi nga xam ne néew na ca ku lay wax la lay gëriñ waaye lan lay wax mooy la koy tax xam nga nit boo demee ba xam nga doomu aadama bu jiitee toujours dafa am benn vise buy nekk ci moom vise bi mooy da ngay bëgg kuy ñëw di la wax lu lay neex même bu dee ay nar la mais na lay wax loo xam ne rek boo ko yëgee da ngay na ne yow mi am nga importance ci kanam nit ñi. mooy ku lay jay mooy ku lay jay. jay googu nag man dama jàpp ne am na loo xam ne jarul sax ngay liir ay téere wala ngay seetaan ay archive pour xam ko xoolal rek ki nga xam ne dafay jóge yow nga toog nga waykat yi woy kenn ku nekk ak sa métier kenn ku nekk ak la nga jàpp ne loolu ngay gagné sa vie mhm. mais am na ay nit yu daan way yu siiw mhm. la tax nga leen daan way pourtant nit ñi ba léegi ñi ngi fi deewaguñ de mhm. ñi ngi fi ba léegi seen askan raful euh, euh, farul kon lu tax kenn wayatu leen ndax dañ leen a lu ñuy jële ci ñoom di def seen i te yow li ñuy jëlee si yow di ko def sa ci seeni poche yow moomuloo ko. moo tax foofu doomu aadama nag bu demee ba jàpp ne bàkkaar mooy li ngay dox sa diggante ak sa borom te xamoo ne am na bakkaar yoo xam ne dafay jur yeneen i bàkkaar. te bàkkaar bi gën a rëy nekk mooy njiit loo xam ne lan la dénk sàmmoo ko na nga ko war a sàmmee ba ña fa nekk ngay am ñaari yat yat woo xam ne yatu kumba am day la ay yatu kumba amul ndey. Euh, beneen bi nga xam ne moom laa bëggee jeexalee Oustaz Makhtar xam nga tey jii nit bu fekkee da nga dem rek bay joxe mhm. al aqrabu awla tey ñooñu di joxe nga xam ne ay ministre lañ wala ay directeurs généraux wala ay yeneen boo leen xoolee am nañ ay villes yu nekk seen kër xam ne amuñu sax lu ñu dundee dund gu mat seen kër am nañu ay chauffeurs yuy ànd ak ñoom oh. am nañu sax ñun bokkal ci deret ñu leen jege mhm. ñi seetaan leen ndax lan da nga bëgg ku naan la yow yaa fi man mhm. sama may lii sama may lee te kenn ku ci nekk xam nga ne bu dee rek liggéey am na koo xam ne fa mu nekk compétence tegu ko fa waaye récompense moo ko fa teg mhm. te yooyu lu jara yu jara bàyyi xel la ci mim réew mhm. fi may jeexalee nag tonton Omar wax na ko wala sama nijaay ji bañ ma wax ko nijaay mhm. mooy euh, revue de presse bi dafay bari wax nga ko yaakaar naa ko yaa ko wax xale yi dañuy wax ci wàllu sport bi duñu wax diine loolu responsabilité bi dafay dellu fàllu ah, fàllu tonton fàllu beneen bi dafay dellu si journaliste yiy bind gis nga Ousmane Makhtar kenn ku ci nekk am nga loo xam ne yow la concerné mais gi lépp looy génn muy dem xamal ne mbir ma ëpp na la ko foogee mm. gis nga li ngay génn nit ñi di ko jël mm. yow xamal ne lañ cay am da nga cay am lu tolloog moom bu dee lu baax la mm. bu dee lu bon la loolu nag boo ko jàppee boo jàppee ne yow yow man je suis un journaliste dama dem jàng naa fii am naa lii j'ai le droit droit à information ba tax lu nekk nga génne ko doo xool la ca baax ak la ca bon laa tufarriq bayna al xaabil wa naabil nit ki di ko jël di ko consommer nga jàpp ne dara la ca fekk maa garraka bi rabbikal karim macha allah oustaz maa garraka bi rabbikal karim ngir tënk li mu wax ci benn baat wala ñaar mooy njiita ko moom fexe ba am ngërëmal ñi nga jiite ngërëmal ñi la jiite ñi tax nga xam ne maanaam ñi nga fal nga am seen ngërëm xel ba am ngërëmal ñi la fal ñu bari nag danañu am ngërëmal ñi leen fal ñi ñu fal waaye faale wuñu ngërëmal ñi leen fal moo dal président yu bari yu fi jaar am na solo bàyyi xel gi euh, day tàmbalee ci étape jàll ci beneen étape lu ama am solo la di ji euh, jaalee journaliste boobu génn àdduna Momar Seyni njaay Seyni Ndiaye Ndiaye mhm. di ñaan yàlla ko yàlla yërëm mhm. am na journal bu ko bind tey ne këru euh, presse bi mhm. ñi ngi ñàkk ay nit ñàkk gi tegaloo te ñàkk yu bett lay doon tudd ci ku mel ne Ahmed Bachir Kounta Sidi Lamine Niass euh, tudd na ci Ndiaye Loo Ndiaye ak ki newoon TFM Maria Marème Silva Diop euh, ñàkk gu tegaloo goo xam ne dafay bette bu mu bett kenn nag journal bi jarul mu lay bett. ndax àddunaay bëgg a jeex. te mandargay aaxiru zamaan na ko Serigne Touba waxee woon ca ca ca aaxiru zamaanam ba bokk na ca wa kasratul mawti alal aqwaami mooy deegu bari gi yàlla xakim la dafa tegale jamono ju tegaloo ci ay weer yu limu di jël ay kilifa maanaam buñ tuddee kilifa ci wàllu diine ji. di jël ay xalif généraux di tegale di jël ay sëriñ di jël ay imam di tegale boo jàngatee 2007 2018 lu mu jël ci ay xalifa ay kilifa yu mel noonu yu limu la mm. léegi nag bi mu jógee ci loolu dafa tourné ñëw ci côté média bi kenn ci ñun Zeyna Fall ci ñooñu lay bokk buñ mm. koy tudd noonu la nekkee di tegale ba nga xam ne dañuy tudd koo xam ne ku nekkoon ci tele la wala ku newoon ci rajo la secteur bu mën ci dooni na wàcc xam ne bidiwam dana fenk mm-hmm. moo xam ci biir technicien yi la wala ci biir am na ay jamono fecckat yi la tegale woon di jël jël ay woykat jëli fecckat jëli ay animatrice ay jamono ay deux mille dix xaw ma onze lu mel noonu la tegale woon ñoom ndongaloo ca lañ demee woon am na animatrice bu siiw bu nekkoon RFM. Eva Eva Eva Mbaye. la nekkoon sax. ok. daan nañ def émission. pour ñoo xam ne sunu borom xakiim la. Mm-hmm. kon bu ñëwee tey di jël ay journaliste di jël ay animatrice di jël nangam nañu xam ne yàlla xakim la secteur bu nekk waajalal sa bopp bis na ñëw ci biir joxeñ na ko de dee a ngi fii mm, dee a ngi fii mais Moussa est-ce que nekkul di fépp lay jëlandoo wala dema dama jàpp ne rek ah. comme bi am turu journaliste bi am. daa siiw non dafay am dafa siiw rek. dafay am mais yaakaar naa li muy rey ci maçon yi di ko rey ci menuisier di ko rey ci mécanicien rey ko mu siiw rek. dañoo am na solo waaw ndax bopp ci dee gi. waaw waaw xam ne siiw du tere dee ñëpp xam nga am na. maanaam jëlandoo waaye nañ bàyyi xel li ma wax. da ngeen a ragal da ngeen nekk ay <laughs> animateur rek moo tax ngeen ragal Oustaz Makhtar tey li mu wax. dafa leer la maanaam maanaam euh, Oustaz tonton Omar loolu moom xanaa kay yi ñaan yàlla xam nga. man la muy yëngu des fay fi maata bi xayri yi. ñooñu dañu am tur kese rek waaye nag famille moom wax dëgg. ñi nga xam ne yéen ñi nekk <laughs> dee ci maçon yi ak ci mécanicien yi rek. li dee ci maçon yi dee ci mécanicien yi moo gën a bari. fi ñu teewee moo siiw rek waaw fi ñu teewee siiw rek. loolu gi moom mi ngi am. am na leen a leen xam am na dëj boo xam ne da ngay suñ naa fa dëj kenn xamu ko daanaka. waaw la. te am koo xam ne moom ko la gën fuuf da ngaa siiw la dégg siiw day am nag chaque jour nga dégg rajo ñu tàggee nit nit ah. nga gëstu xool dem sa yoon waaye bés boo déggee ko xam sa loxo dem gémmiñ waaw et nag kooku nag liggéey ñëpp bokk yam ki dalaa jege rek dee daal a ngi fépp rek dee a ngi fépp maanaam dama bëgg a wax ne dee a ngi fépp nañ bàyyi xel mais li ma waxi nañ ko bàyyi xel am solo maanaam dama wax ne dee gi bari woon na fi te këru yëglekaay yeeg journal yi li muñ fa woon deegu bari gi mm-hmm. waaye ci weer yi tegaloo nii laa wax mm-hmm. ni muy jëlee ñu siiw ñi mm-hmm. nañ ci jàngat noonu la tegale woon di jëlee këru diine yi ay kilifa ci ay jamono jamono yii nii wàññeeku na ci lu mel noonu mais nañ jàngat lu ci nekk rek dafa am lu muy junj am lu suñ borom di wane dafa am élément bu ñuy seetaan euh, buy wax ci bu njëkk ba euh, gouvernement bi jëloon na ay dogal pour xale yi nekk ci mbedd mi pour lu leen fa jëlee waaye gis nañ ne ba léegi loolu dafa am ak cooxe gu ci am ñu seetaan élément bi dellu siwaat ci plateau bi ginnaw ay phase yu bari ngir jëlé xalé yi ci mbedd mi sétlu gi moy tay la walu gëna ay mu doon bir ba nga xamanteni bokku na ci li tax gouvernement bi ko ñak top gu gouvernement bi ñak top yoyu le phase suñu sukkandiko ci suñu kat xalé ñi ci si bi am pagaate tay la gëna bari parce que tay bo xolé état bi côté boobu da si xaw a lajj tu vois parce que des fois da ngeen dañuy woté lo xamné lolu do am finition d'après sama gis-gis ak sama ci sama sétlu ñom lu ñuy liggéey yépp début bi dañ ci xërtal nit ni nii xam non sen xalaat rafet nak yoy mais buñu démé ba ci biir li nga xamné moy finition bi ci liggéey bi day dess xalé yoy nga xamanteni dañ leen di jëriño di leen yal wan lo nek na mbir ba nga xamanteni day dox bu baaxa baax ci mim réew ndaxte sénégalais yi kat dañoo tam génné sarax do ñu fi ëpp ñu fi yal wan di fi taxawaalu nek ci mbedd bi ñuy wax retrait des enfants ay étrangers la ñu quoi euh, pays périphérique yi la ñoy ñoy ñew suñu réew mais surtout mooy sénégalais euh, bëgg nañ saraxe saraxe bi dox na fi parce que gis koo xam ne bu yelwaanee ci benn bés mën na am salaire koo xam ne cinquante mille francs lay am par bés donc sarax boobu dootul neex a bàyyi saraxu boobu dootul neex a bàyyi nguur gi itam am na ci wàll ndaxte war naa xool suñuy frontières yi ndaxte yooyu la xale ci réew ya nga xamante ni ñoo ñu war la ñuy jugee. jël ay mesures de précaution ci frontières yi comme lu mel ni comme ay Mali wala Guinée yooyu noonu côté yooyu noonu parce que booy yooyu yëpp foofu la ñuy jugee côté yooyu la ñuy jógee mooy surtout côté Mali bi noonu dem ginnaaw Kédougou bi noonu à vingt cinq kilomètres côté yooyu noonu da ngay gis booy yooyu yëpp foofu la jógee dañ la ay doomu jàmbur presque bëri ñu fi xale yi ñuy sàcc yeeg yooyu yëpp côté yooyu lay jógee moo tax ñu jël booy recruter leen di leen ñuy fayloo des fois da ngay dem fii cité des eaux da ngay gis benn yelwaankat sax këram presque R plus 3 si ay yelwaan rek la koy amee mu doon mbir ba nga xamante ni ëlëb na bopp ñu bëri ndaxte yooyu le xale mën nañ jël beneen yoon ba mu jural leen ay gàllankoor si noonee ñu ñu dajal ñu ngi woo nguur gi mu jël ay responsabilités jërë ngeen jëf euh, waa régie yi ci élément boobu noonu la yalwaan gi ci xale yi xale yi ci mbedd yi tonton Pape Omar. waaw defe naa wax nañ ko ci tàmbali bi euh, ni gouvernement bi jëloon na ci ay mesures euh, pour inter tere ko ba sax créé woon ay centre yoo xam ne dañ di bu leen récupérer foofu lañ leen di yóbbu waaye mujjewul fen xamul tax mujjewul fenn. Hmm. moo di ñi nekk ci mbedd yi ñaar lañu. xale yi ñu tëdd leen ay taalibe ak ay magi jëm ñi ay way lompañ lañu ñi dara dalu leen ñu nekk di yalwaan lenn lu ci nekk dafa am lu ko fi indi ak lu ko fi téye dama yaakaar ne bu fekkee ni taalibe yi bu fekkee ni eh, eh, seeni sëriñ yi daara dañoo jógee ci eh, seen dëkk ñëw installé Ndakaaru indi waale leen di leen jàngal alxuraan te bu ñu desoon te àll ba xëj ne dañu am ay tool ànd ak taalibe yi di bay du am lu ñu dunde fii amul ay tool te il faut ñu dund te ñoom amuñu salaire kenn fekku leen fa xëj na xale yi mën def dul gën ci mbéd mi kon état lool li nga xamni moko sabab modi ñak fulal gumu fulalul dara du leneen li mu def école française su fekkoon ne daf ni def dara kon xalé yi waxuma sax ñew Dakar waye teñ dekk ba lañuy top di jang alcorane ka serigne ba len di jangal ñu utal ko salaire mu nek fonctionnaire di am retraite ak lepp kon problème du agsi fi ba len fa jëlé itam dañ len di yobbu ci ay centre mais centre boo xam ne boo fa yóbboo nit ki fekk ko fa ak lekk fekk ko fa ak naan wala mu dee mais kon kay delloo ko ca daara ja fekk ko fa ak lekk fekk ko fa ak naan su ko defee boo ko fekkaatee ci mbedd mi waxuma yóbbu centre bi yóbbu sax police dañ ci am sañ-sañ mais defuñu ko ñeneen ñi nekk ci mbedd mi tamit nekk ay magi jëmm nag di yalwaan ñii dara dala leen ñii dara dalu leen Fallou wax na ko léegi dafa am ñoo xam ne liggéey lañ ab liggéey lañ ko def responsabilité partagée la ñoom ñi koy def yaafus lañu sàggat nañu doyee dal nañ seen bopp waaye Sénégal yi leen fay fekk itam dañ ciy trouver seen compte Sénégal ñu mën a saraxe lañu mais trois quarts bi kenn saraxew ci te yàlla tax ñu ci ëpp saraxu jën rek la ñuy def ay sondeel ay ay suukar ay lu xonq kese ay bëy ay ganaar du ma ci gën a métti nag mooy li nekk ci xoolu Ndakaar hmm. di rond point Castor bi hmm. nga xam ni dem nañ ba créé fa léegi marché restaurant yalwaankat yi hmm. lu leer lay wax. luy restaurant ah, ñëpp ko gis. Ah, fi ñuy toog noonu. fi yalwaankat yi toog noonu. Ah, ku fa dem fekk leen fa. ku fekk leen fa waaye am na ñoo xam ne ñoom lañ fay ut mooy dañuy togg di jaay yalwaankat yi. Hmm. te dem nañu ba organiser fa ay natt di tegg cinq cent mille ku gañ ku nekk wala di tegg lu mat un million. ñooñu ci ci yalwaan ci yalwaan. Hmm. xanaa ay mag lañ ñooñu xanaa ay mag lañ mooy mooy mag yi ma lay wax. Mm-hmm. te da nga ciy gis man am naa reportage bu ma ci mos a def ci benn Saint-Valentin bi ma nekkee ci beneen télé. Mm-hmm. ñu dem seeti kenn moom mu ngi fi ak ñaari jabaram. loolu la ñu yor ci loolu la ñu yor foofu la nekk foofu may tax fa may tudd nii lay taxaw. Mm-hmm. kan moo ko fa bàyyi Sénégal bi ko fekk. nga xam ne o lieu mu julli ñaar rakk ñaan yàlla au lieu mu yëkkati un fekk Paa Omar mii soxla ko mu ñëw jox ko ko dem ci sëriñ mu génne loo ko xaru gaynde bu ne ko mi ka ko fa jële da koy mere ndax yaakaar affaire am baax te kooku kan la Sénégal bi daan yàlla ma kat bari kon ku bëgg ku mu fanaan ak ku bëgg ko wéttal ubal néeg bi du leen boole ñii yalwaan dañoo bëgg ñu fanaan ñii saraxe bëgg ku ubal néeg bi tëjal bunt bi du leen boole ñoom la ak ñun ak gouvernement bi du keneen d' accord fan yi ñuy euh, tànnaan ministre yu bees nee nañ sarax mi dox na lool ci dëkk bi yalwaankat yi waxuñ dara kon question foofu dana am question bu judd ñanay saraxekat yi alaaj Fallou Cissé jërëjëf kii daanaka li ñu waroon a wax yow wax na ko mhm. lépp ay dëgg mhm. li ma ciy doole rek mooy su man état laay waxal mhm. il est le responsable bu defalut kenn dara waroo koo tere dara ñii muy defal sax mënalu leen dara te lam leen di tere nañu bàyyi daara yi defaluñ daara dara teguñ leen fi ngir ñuy xool daara ka xupp ka tiital xaalis bii ñuy dem di toppatoo njàngam tubaab tabaxal la ba fooy fooy sax dañ la koy defaral mhm. di la wutal lekk nga sempe sa loxo ci daara yoraat sa doole rek li nga war a def defoo ko nga def li nga bëgg a def ay caaxaan la mhm. loolu si loo war a def ak loo bëgg a def. daa loo war a def defoo ko li nga bëgg a def nga def ko. Mm. rek kon ñoom dañ leen a fal ñu toogal fi tubaab toogal fi lakk tubaab ak kuy jàng tubaab te ñoo ñaa nga réew ba bëgg a dee étudiants yi laay wax. Mm. mënaluñ leen dara. Mm. walbatiku bu ñu bu ñu meree taal suñ kaar yi tey suñ mbedd yi nangam nangam ba suñ nit sax dee ci. yow ñi nga yaral sa bopp mënaloo leen dara dem ci ñi nga dundalu ñuy faraatee lekk nga di dal seen kaw. sëriñ si ñoo ñu ñoo wara a xeexal yi bañ ko yaanaa maar ay ay ay rapport rek la li ñuy def amul njariñ amul njariñ te mi ngi nii am baat ba léegi am kàddu bu ñuy laaj réew mu wopp mi sax dañ leen ti laaj ñoom ñi nga xam ne dañu dañoo wéradi nañ waxante dëgg moo tax ma ne étudiant dëgg-dëgg jàngal dama bëggoon lu la noppal ba wut ba wut jàngal di ko fay di la jox neexal sa liggéey bu ci xaar ger def sa wareef mooy cëru gor étudiant dëgg-dëgg jàngal dama bëggoon lu la noppal ba wut waaju lay jàngal di ko fay di la jox neexal étudiant ne ci taaxam kaw kii mucc na ci wale buy taw nii laa ko toppee indil la nag li gouvernement def état def def yalwaan mm-hmm. yalwaan juróom mm-hmm. benn rek moo tax ñu yóbbaale lépp jox ko ko mm-hmm. kenn ci yalwaan borom euh, yaa rabbi laaraan <laughs> kooku dong ciy yalwaan bu ndaw day faraatu jot kële kenen ki da melni Matar sar jang ba fessal aduna. yi waaye xamul aduna serigne bi ne ko demal nga wëri aduna moy dundal bopam kok may wa mastata fi sabilillah ngir yalla lu way am te attan ñepp bu mu ci wax baxna waye ki nga xamne yow adiye diw ko la wax ne sa serigne bobu wala sa mam joju nit ñi ci mbedd yee ko wara jox dara xamoo sax koku sax sa mam ki ngay wax sax na nga nan ko adiye diw ah, amna yaa ko gëm ki nga dajel gëmu ko mm-hmm. <laughs> te xanaa doo ko forcé ni ko diw mi ma gëm foog nga jox mm-hmm. kooku dañ ko war a duma mm-hmm. teg ko fee doo tam te ñooy baare mbir nii ponkal yu mat sëkk kooku lu muy def wallaay dëgg la ah? ne yaa ji seex a ngi yelwaan ana bàyyi seex <laughs> ki waroon na yor ba yaayi seex ah yàlla dogal seex kay am na yaa ngi seex kay ku judd amandoo ñaari doom. bu dee nag da ngay da lay yalwaan yàlla bu kenn seexati. kii ne baayo baa ngi yalwaan ko ci gën a yërëmtu. ku juddoogut ñàkk ndey ñu di la yalwaanal boole ci. te yiñ lay jox yàlla taxut. nga de. ki waroon na yor yaayi yaayi yaayi baayo. li nga waroon na yor yaayi baayo bu doon ba mu ngi dund boole ko baayo. boo ko boo ko joxee baayo da yalwaan. ñenn ñi dëkkuñ ci réew mi. et nga ne ko do de on ni nga na ñu fi deug la de te yëpp dañ de dongo dara dongo dara te dongo dara da war a goré ko tax yalwaan ak muñ ak bañ lu bon bëgg lek lu leew mm-hmm. saccu defut dara étudiants mm. yi ñoo mata yar mm. d'accord jërëjëf Serigne eh, si Cissé ci jàngadi alaaji eh, ah, fallu sen <laughs> jaay man di xam nga duma bokk ak moom gis-gis <laughs> ndax yalwaan bu bëree rek wa dara ji ko fi indi ndax ñoo lay sant lay yelwaani ak looy saraxé kon marché sarax ñoko doxal ndax seen yoy ñi jëfëndiko faaw nga am lo jénn sarax ko te kan ngay sarax may ki nga fekk ci mbedd mi waye buñu démé ba xalé yi bari ci mbedd mi lolu dafa wara tax ñepp jaxlé ndax mbedd ñaara ci dajé ku ne ak lu ne mën na daje ku ne ku défar mbirëm wala ku mbirëm dajé ak lu ne moy lu ne mën nako fekk ci mbedd mi

du maanaam du xale yi mbedd mi. waaw xale yi mbedd mi waaw waaw waaw xale ak xale yi mbedd mi moom loolu la leeral. léegi nag euh, ni ñu ko waxee nii yelwaan yaatu na xale bu demee bay yelwaan euh, am na lu lu ñuy tere def ci boppam ndax yaa ngi wax sànq naan euh, école bi lañ gën a jàppale daara ji loolu lu am la ndax niñ def école bañ ko defoon daara ji xale yi duñ génn di taxawaalu xale yi dem nañ ba sa kuy génn da ngay permission pour génn. kon toppatoo googu am ci xale yi ci école bi dañ ko war a fal waa daara waaye xam nga euh, àdduna dafa day waar nguur ci ba day xool intérêt ndax dañuy dem ba ñuy yëngu ci wàllu logique ak xel xel xalaat dañ naan waa léegi euh, nguur gi ban intérêt la am ci njàngum alxuraan ban intérêt la am ci njàngum daara ki nga xam ne maa ko jàngal école xëy na bu nekkee fonctionnaire ëllëg mën na maa jariñ ci lu bëree bëri mbaa du kon dafa xalaat ne kon njàngum daara nii dongo daara da koo amalul njariñ ba tax mu jàpp ne xëy na ñi mu war a gën a toppatoo mooy ñi war a nekk ay fonctionnaire ndax ëllëg ñoom ñooy fonctionner ngir état bi. est-ce que du njàngat boobu sax mooy réalité bi. waaw waaw dafa gis ne njàngum daara amalu ko njëriñ moo tax waaw léegi nag. bu dee ci wàllu jëriñ waaw léegi nag bu dee ci wàllu jikko. Mm. foofu lay amee njëriñ. Mm-hmm. ndax ki nga xam ne maanaam mm-hmm. danga nga koo jàngal ba noppi te defoo ci moom jikko. Mm-hmm. jaarul daara koo koy këpp kees lu tax ko daa mel ni kon li mu waroon jiital moom la mu jële bu jëloon njàng moomu jiital ko ci njàng mu tubaab mm-hmm. kon nit dana dem ba am xam-xam ci wàllu àdduna waaye dina am jikko ju rafet ju mën a euh, toppatoo li ñu ko dénk mm-hmm. dangay gis koo xam ne jaarul daal di dugg école di am di am mention rek di a dem nekk major ci lu bëri waaye am na loo koy dénk bu yàqal la ko mm-hmm. ndax jikko ji moo baaxul jiwoo moo baaxul léegi dafa mel ni kon daara mel ni kon moom fa dem taxaw foofu tubaranke fekk ko fa raf rafle fekk ko fa waaye xam na ni lu mu yàgg-yàgg mooy mu moo koy mujje loolu looloo waral deful pexeem lu mooy joxama ngir yàlla moom laa lay wax nii foofu laa jëm foofu laa jëm léegi ñàkk pexe googu nag laa xalaat ni mën na ñàkk mhm, yow jox nu xalaat waaw mooy ci kër ci kër yi la ñuy njëkk bàyyee xel ndax xale boo gis mu taxawal ci mbedd ci kër la génne ana waajuram ndax tal na ko waajur yi suba teel la ñuy xëy génn du fekk xale yi yeewu bu ñu ñibbisi fekk xale yi tëdd diggante xale mën na fay taxawal dem ko neex kon foofu càgganteeg waajur yi feeñ na. ndax bëggoon muy tëj kër gi. du ko tëj waaye nag nañu nangoo toog. Mm-hmm. am na ñoo xam ne fi ne toog moog la doon ñoom farat génn. Mm-hmm. ndax jàpp nañ ne buñ ñu génnul du dara du dox. jigéen dem nañ yaay génn baay génn mënoon nañu organiser. bàyyi génn yaay toog waaw foofu laay waxee man foofu laay waxee. ci xel lay wax yi nga ko ci xam-xam. ah loolu ma ko jëlee dégg nga maa maa liir nga foog dañuy waat kër gi. Mhm. fexe ba xale bi du génn. ndax ndey am na fu ñu ko wàcce woon wàcce bi ñuy ñëw ci kër gi wàcce wuñ ko ci mbedd mi. Mhm. kër gi dañ ko wàcce ndax. da ngay gis sax ci ci wàllu damay gis sax ñu koy def mhm. ku jigéen ki bu duggee ku góor ki génn mel ni kon moom moo war a génn wuti léegi kon xale yi foofu damay njëkk laaj kii kuy ndeyam kuy bàyyam lan lay def ci mbedd mi ana ay waajuram fu mu jógee daa réer wala réerul mhm. léegi beneen bi nag mooy nguur gi mhm. nguur gi sànni na leen ci mbedd mi buñ demee ba dongo daara yi jàpp ne menn pexe rek lañ am mhm. mooy tàllal loxo mel ni pexe lañ am mooy yelwaan mel pexe lañ am ngir jàppale lis naan ah dañ maa jox ko téeméeri xale ah te fayu ñu ma dañ ma leen jox te yàlla tax kon li ma leen dundale mm-hmm. naa def pexe jéem a yemale ñu ne ci école bi ak ñu ne ci daara ji mm-hmm. waaye ban intérêt la ci daara ji loolu mooy problème na saxaw baat bu am solo la d'accord nañ ci dikk balaa est-ce que état daa war a xaal la tout la jëm nag man foofu laay waxee man du intérêt kenn waaw waaw waaw ñi lay falu du intérêt état du intérêt man nag foofu laay waxee hmm. école bi falul état ah, voilà ñëpp dafa war a njaboote ñëpp lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ci Oustaz Birame Bassine man de li ma ciy wax rek Oustaz Makhtar mooy yellante koon yellante woon tey jii hmm. suñu dirigeant yi. Mm-hmm. di seetaan émission yu mel nii. ñoo ko gën a gis. <laughs> xaaral ma àggale saaga xam nga saaga am na ñun yaree saaga waaye ku ñu yarewul saaga doo saaga boo koy def léegi ñu lay jël si fii. day wax ne ñu ngi lay déglu rek moo tot seen dara umpule. waaw dëgg leen ña ngi lay seetaan wax wax leen message wax la bëgg a wax. loolu li mu wax dafa am solo. Uh-huh. ndax bu waxee saagaal. Mm-hmm. am na ku koy déglu koo xam ne dafa daan saaga mhm. mais su ma ko waxee ne ko ku ñu yar ku nekk na nga yare kooku war naa xam ne voilà dafa mooy mhm. maam góor gu tedd ga Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mhm. dafa daan wax naan dëgg bu àndeek saaga saaga waa koy newal doole <laughs> yàgg naa yeete mu ne dëgg bu àndeek saaga saaga waa koy néewal doole waaye li tax ma ne ñoom waroon nañ di seetaan émission yi ñun ñoom la ñuy liggéeyal tout ñoom rek la ñuy liggéeyal. ñu ngi leen di wan yoon. ñu ba ci des tam mooy euh, seen conseil yi nga xam ne ñoom ñooy jàngale di yeete ñu fekk ña fa nekk di la ko commencé si régie ba ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu fay ñu ñu moo gën a yàlla ñu fay ko koo xam ne du la wax mukk la lay jëne est ce que xam nga problème bi problème bi gis nga yéen bu leen fàtte ne euh, tonton Fallou gis nga ku ca doonoon yow rek di yow nga képp koo xam ne boo duggee ñëpp jóg taxaw dooy dem ñi xàllal la yoon yi soo waxee ñu ne la waaw soo moytuwul juum dana la yomb yomb moo tax nag moo tax gin nga am na loo xam ne yedd yërëm a ko gën parfois ñi yedd suñu njiiti waaye man dama jàpp ne dañ leen a war a yërëm ndax ils sont mal entourés ñi leen wër ñoo leen warul wër te li waral loolu nag ñi leen wër dañ leen a warul a wër te li ko waral mooy gis nga bëgg gu ëpp baaxul il faut rester à la périphérie de celui qu'on aime qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah gis yàlla tax boo koy jaamu boo bëggee xàll sa yoon dem ci moom da am lu la fakkatal faaw nga jaar Seydina Muhammad kon ñoom dong mënuñ fa nekk faaw ñu am ñu leen wër mais ngi leen wër nañ leen segg mhm. bañ a wut koo xam ne da koy récompenser sama nijaay nga ko amul dara lu mu lekk daf koy wuti ji ak nu ko mën di wuti am na ñoo xam ne nag wax dëgg du nécessité mais dafa nekk si ñoom jikko melokaan moo tax ñuy génn moo tax ñuy génn di dem ba ki des mooy ki nga ko organisé lu ñëw dafay dal ta kaw yomb nga ñoom Oustaz Makhtar ni yor nañ ay daara ñu ngi seen kër di góorgóorlu nekk ay jàmbaar Oustaz Makhtar laay wax mais am na ñeneen am na keneen ku toog di seetaan ma dundee rus na ko wax ndax as gor la te ay nit ñoo ñëw jël ay seen doom jox ko moo leen di dundal di leen jàngal di fay ña fay jàngal di fay courant ak ndox ku ci feebar moo lay faj te benn sëriñ bu def benn gàkk benn gàllankoor wala jadd jadd bu ndaw juum gaañ dongo wala leneen nattu dal la presse bépp ay xëy jël ko teg ko man loolu damay xool di ko xool man lii lan la pour lan la d'accord yu mel nag xale yi si mbedd mi nag man li ma bëgg a wax rek benn baat la mhm. daara yi bu ñu organisé wu woon gis nga nag bu ñëpp di yàq mhm. yàq farata la mhm. ak takabburu alal mutakabbirina ibadatun gis nga daara yëpp buñ génnoon xëy tey def marché taxaw ne dëkk bi faaw ñu jox ñu suñu bu buñ ko defee taxaw dër bañ a dellu gannaaw mbir mi dana am changement ndax nag buur mbooloo rek la ragal d'accord am na solo enfant de la rue ah. la rue xam ne de la rue. nga xale yi ci mbedd mi xale yi ci mbedd mi. lu tax du neex a saafara mooy buñ koy waxtaanee comme télé yi ñoo njëkk a indi jàngoro ji du neex a saafara. Mhm. mooy bu ñu ne enfant de la rue rek ñu dem jëli taalibe indi. Mhm. waaw rek rek mhm. ah. léegi nag bu boobaa lu tax du a saafara. mooy ku mel ne Maxtaar Sarr moom it day jóg riposte taxaw. daa am yeneen xale ci mbedd du xale yooyu rek a nekk ci mbedd. daa gis xale ci mbedd mi yu nu taalibe. ah kay du jeex. ñi nga wax ni ñoo nekk rond point Castor bii nii. bay def seen natt dëkkuñ ci réew mi sax. du ñuy taalibe ay foofu laa bëgg a wanee tax du neex a fàqman yoo xam ne ay xale lañu parce que majorité ay fàqman lañu. te ñu ci mbedd mi. bañ a ciblé daara waaye heure buñ ci def thème débat da ngay gis ne fu muy mujj rek mooy xas sëñ daara ba waaw rek taalibe ba njàng mi dañoo tilim fàtte nañu xale bëlee nga xam ne ndeyu seex la bàyyi nañ ko moom bokkatul mhm. kooku am na liberté mhm. day xëy dem yelwaani gàddu potom mhm. léegi sëñ daara ba la ñuy jël dugg biir këram am nay soxna ci lañ leen di dundalee fàtte nañu lan moo nekkoon l'essentiel bi mooy xale bi nekk ci mbedd te ñu xam ne xale yi ci mbedd mi ñëpp du ñuy ay taalibe taalibe du nekkul ci mbedd dëkku fa day dem uti lu mu dundee est-ce que loolu farata la kooku mooy génn googu muy génn war a dageeg ku ne lu ne est-ce que loolu boppam jàpp ne ko faaw nga teel a yelwaan faaw nga teel a laaj. defuñ ko ci boppam est ce que loolu pexe kese la pexe la aussi. defuñ ko defuñ ko xool lu ko remplacer. defuñ ko ci boppam. ah en ah, kay dañ jàpp ne xale bi dañoo tàllal loxo ku soj faaw mu sëqat. waaw <laughs> mais nekkul dafa bëgg a sëqat. <laughs> Mm. mais dafa soj. waaw dañ koy faj soj dañ koy faj. waaw kay léegi faj dañ ko bàyyi ak sojam dañ ko seetaan ak sojam moo tax il faut mu sëqat soj mi daa yàgg nag. parce que bu chronique dañ koy faj. consulté wuñ ko jéemuñ koo faj. kan kan kan moo ko faj rek. ko waroon a faj mooy état. mooy état laay wax ne moo yor ñaari soxna. waaw ah. ah. kii di aawo kii di ñaareel. waaw waaw. aawo bi mooy daara ñaareel bi mooy école. dëgg la mu doomu aawo bi mu seetaan ko. waaw est-ce que sëñ jëndalu ko yére jëndalu ko dàll. waaw mu tilim. Mhm. génn ci mbedd mi ut lum lekk doomu ñaareel bi mu fat ko. di ko faj. Mhm. di ko dundal. doomu ñaareel bi kenn gisu ko ci mbedd mi. kan moo ko amal njëriñ léegi nag waa dëkk bi yëpp naan doomu aaw bi dafa tilim ak dafa salteeg dañuy yalwaat ana seen baay. kan moo ko ci amal njariñ

gën. dëgg la kiy jàngale moo gën ab professeur. moo gën ab enseignant. loolu ci kër yi lañ koy defee. yar bee matatul rek. dëgg la waaye gis yaru démb bu matoon duñ fi ne di jàngal kenn. mën li ma xalaat mooy ñu jàll dañ ko sànni mais professeur wax nga dëgg léegi sëriñ si nag sëriñ daara si ñoo war a am fayda. dëgg la ñoo war a am fayda. oustaz Matar nee na léegi dañoo soj te ku soj da nga sëqat. waaw nañ faju ji nag. nañ sëqat moom it bañ a jël soj ma nag def comme ndox. soj day wàll ñoom ñoom soj seen soj day wàll. bu nekk ñu ngi wax ne nañ ñu faj. nañ faju ji nag. Ah. mais ñii faje ñoo bañ a faj. waaye kaay leen faj ma laa d'accordul. soo feebaree te mën a soo xam ngay soo faju ji déedéet am na comme dañ koy forcer mu faju am na feebar boo xam ne bu nekkee ci réew état dañuy yóbbu nit ñi quarantaine sëñ a faj <laughs> waaw feebar am na nu muy mel ci réew Oustaz Birame ma tënkee ko benn wax war a faju eh. sëñ daara eh. dañuy wax tout le temps nañ organiser wu uh-huh. man leen du seen rôle dañ leen a war a organiser d'accord uh-huh. hmm. ah, waaw d'accord ma ma layal ko dañuy organisé wu ñu accompagné leen kay dañuy ñu fekk la ñuy waxee laay laay laay leerale rek boo jugoon ne da nga war a recenser daara yi ci Sénégal yan moyen nga koy defee sëñ daara déedéet amu ko ah kay état ko war a jox ay moyens yu ko defee. dafa war a état yi organisé. dañ leen a war a organiser lu loo. waaw waaw ni man dañ leen a war a encadré. Serigne Daara yi suñu amee Pastef. mooy encadré la encadré. nit ki doo ko fekk ci domaine bi xamul boobu. voilà day laaj day laaj. dañuy organisé wu encadré leen. loolu tax ñoom dañoo war a jàng de. man am naa xalaat sax dama bëgg ñu tëj man li ma xalaat. waaw léegi ñu jàll tëj daara yëpp tëj daara yëpp dugal dongay école. dëgg la xool ba xam du jariñ la loolu daal loolu daal bu xëyoon tey au Sénégal daara ci Sénégal yëpp. te ñaaw ko dégg nga ñu teg daara yëpp dugal xale école. <laughs> kon ne musiba ko rek mooy mooy mooy gas am. ay fonctionnaire ngay gis wala safaan bi. Ah. wala safaan bi. wala ñu tëj école yëpp dugal. <laughs> élèves bu dee ci ko moom naka kër yi gérer rek. mais bu ñu ci xaar bi euh, jërë ngeen jëf euh, ñu jaajëfal leen bu baax a baax a baax di jaajëfal euh, ñu ñu bokkal plateau bi yëpp ci xalaat yi am solo yi nga xam ne moo fi euh, bàyyeekoo damay ñëw ak Serigne Fallou Cissé dafa am baat bu ñu yëkkati woon di ko waxtaanee muy añu ndey liggéeyu ndey añu doom baatu liggéey juddu fa ndey doom añ baat bi fi lañ ko fekk. ndax yow mi nga xam ne yaa ngi gëstu ci wolof dañuy saxalal ne baat bu yees la wala ci suñu mbatit la ak it suñu culture ak it ñi may tuddee génération caapa ñaama bi mooy ñi ñëw vingt unième siècle bi niñ koy waxee boo tuddee yu mel noonu dañ naan la mais yooyu moom dafa dépassé maanaam ndax ci ñoom lañ euh, indee baat boobu wala baat bi fi la nekkoon ndax baat bu yàqu la maanaam dañ ko waxoon mu nekk waxu mbedd démb ñu naan tuug loolu bu ko kenn wax wala dafa nekkoon baat boo xam ne nii baat bu sax la bu am njëriñ la bu lu ñuy làmb daj ko la liggéeyu ndey añu doom alaaji fàllu siisi aoudu billahi min ashaitan <coughs> kon mbokk yi nu fas na liggéeyal sunu réew te yàlla tax yàlla mi am xam-xam nag moom xam-xam di ko joxe yàlla na nu dimbale ba nu jox sunu réew njëriñ amiin lu nu fi génne rek yàlla nay dëkk ñooñu ngay mooy caapaa ñaama boo demee ci seen téere ya bind nañ ci ne euh, chaque réussite d'un homme yaa a une femme derrière mais quelle femme te bañ ne femme ndey ca la kon fekkoon na olof na liggéeyu ndey añub doom ñu bari juddu nañ ñu ma mag fi lañ ko fekk loolu ndax dëgg la wala dëgg mm-hmm. loolu ay question bi kay loolu ku doon wax ci xel la ak xalaatam ak bëgg soññu jigéen ngir mu liggéey waaye liggéey mënta jéggi ki ko liggéey di ko jox ko ko liggéeyul bi alxuraan ñëwee fii deel na ko ay xalaat la rek yuñ tëraloon waaye nag lañ ci jublu dëgg la waaye niñ tëralee wax ji du dëgg nun loolu la ñuy liggéey nun waa Kipango wolof wolof indi la wax ji lii mu tërale kat dafa mel ni ko doon togg togg gi baax na ceebu jën la waaye ndab lim ko doon toggee moo baaxul mooy baat bi liggéeyu ndey añub doom liggéey mooy lan am na ku nekk ci kër moo dàq fóot moo dàq togg waaye moo dàq tontu moo dàq xuloo kooku liggéey na yàq na ko a ah, liggéey nga fa kon baat ba ci dëgg-dëgg amoon na beneen baat dañ koo siiwalu nangu jël na ci rab bañ kër guy sëy bu jigéen ñi di sëy këla gën a nangu kookaa lay gën doom mooy li mbokk mi woote woon wax ne dañoo waroon jël nangum nday añub doom kooko fekkee wu ma ko xam nga dégguma ko mm-hmm. Mm-hmm. yàlla xam na ne seetaan mm-hmm. comme woon ne sax thème bi na waaye kookee wax na dëgg nangum nday mooy jariñ nday jariñ doom liggéeyu nday léeg-léeg nday da ciy sonn ba noppi du ci am dara liggéey bu àndul ak pas-pas bu xol bu ko àndul rek yéene ak ak liggéey nga waaye deful dara moo tax may faral di wax ni booy liggéey sa jëkkër ngir not ko wala noob ko ak di ko ak di ko liggéeylu fexeel ba liggéeyal ko ci liggéeyu nangu soo ko liggéey liggéeyu nangu rek sa lépp dox mooy li ngay wax ne liggéey liggéey sa jëkkër liggéeyal sa jëkkër a ko gën ngoog liggéey googee ma koy wax na liggéeyal sa jëkkër googu nag day bokk ci xam ne war nga ko def nga nangu ko di ko def ci xol bu sedd gis nga sëñ Moustapha Bassirou na surtout sëñ Touba la mhm. sëñ Bassirou Mbacke ko jur mhm. am na soxnaam su nekk Mbacke ci garasu tiit bi mhm. naa ñi dëkk foofu nañ xam li ma la wax li mu am ci ay mbindaan yu ko sëñ bi wutal day tëdd rek. Mhm. mooy seex bi waaye bu sëñ bi xasee ñëw kenn du yëngu mooy takk ndigg li fiit mooy bale mooy def ba nga xam ne danga ngay naan bi sax man na ko ne waaye ana ñi ma la joxoon lu ñuy def mhm. li fekk sëñ bi fii ne mooy def lépp. Mhm. kon da ko yéene xam ne kii da koo war a liggéeyal. kooku bu juree doom mu baax du berti ñu ko xam. moo tax ñu lal ñu def ko ñetti xaaj. benn rek ci jariñ doom. lal lal <coughs> ñetti xaajam. saa boo tëddee sa jabo jëkkër daal jabartaal ca ci ginaaw bum defee lu bum la wan gannaaw bool bëti ko wan la kanam baxna bu jaxane won la kanam manam nopi na ma yow lay xaar saa boo daj ko koko domam bu wutek bu am utul yefi di ko fekk ci te li jaakaaram di tas lu bari mo am ko xamne nak ci buntu bi la top bokay lal mu dewu ci buntu ba nga daw ñoddi ko xecci ko foko jotté lo ca def baxna doom jooju la ñu wax ne su wutee mën naa am waaye mu téye ko mooy jafe ci moom mm. mu am koo xam ne ma nga tëdd ci sa gannaaw waaye ma nga danu ba jëm ca miir ba da ngay làmb doo ko jot ba fekk ko ci miir ba amut fu mu dem mm. doom jooju lañu wax ne dara dana ñëw bu jub ko dul agsi mm. mooy ñu gis nga ñu bari seen yaakaar di tas ndax sosu ga mi ngi sosu ci naqar mi ngi soxu ci doole mi ngi soxu ci forcé kon su ma la déggee nangu maanaam loolu euh, kon ñaareel nit du mën a àtte kon euh, kenn ci sëyam ndax li may wax nii ci doom fa mi baaxee dafa ump dafa nëbbu. dafa ump ñu bari waaye day feeñ. Hmm. xam nga fu muy feeñee. Hmm. mooy xam nga ku mel ni Fallou seen mi xam nga moom saxuma ko mu ci jabar yi <coughs> euh, ku ñuy wax Mor Gay Xaar bu <laughs> baax la woon. mu ngi hmm. Mor Gay Xaar. Mor Gay Xaar. waa RTS xamoon nañ góor bu baax la woon. dafa bëgg a wane jabaram ni mu nangoo. mu ngi invité ay nit Bambey ñooñu ñëpp ñëw toog mu jox ko ne ko samay xarit fi ñëw ñoom Maxtaar Saar waa Ndenkaane jox ko mu togg jàpp ñëpp ñëw mu lal teg mu raxasu daal di njëkk a tibb seex ne am am am ubal ubal acca romb ma yow yow ah, bu ma gëdd ko mu jal ndab li dem ak waaye ñu raxasu ba noppi mu ne ñorut dafa ñorut dafa ñorut yow gis nga yow gaa yi téye waay waaye déet waaye téye mu ne ndaw si dem teg dem sangu ba set sol lu rafet ñëw raam ba dend ak moom ci biir mbooloo mi kon nijaay defe naa lii nga ma joxoon sa alal laa bañ mu yàqu sa alal la yàqu lay ñaan ndigal soo ma ko mënee may ma jël ci sama alali bopp toggatal la li nga bëgg mu ne ko ana li nga mu ne ko mang fa mu ko demal indi mu ne mu ne taaj mu ne gaa yi raxasu leen ñu ne ko ah, a da ko fee toggaat mu ne ñor na làmmiñ wee ko ñoral gis nga tontu bu baax. Mm. ku nangu mu feeñ ci mm-hmm. moom la ñu suñ góor ga waxoon alaaj taala siise bañ ko seetee. waaw mu ne tontu. Mm-hmm. ak toog ak fóot. Ah. ku bàyyi ba sëyi soog di ko jàng. waaw balaa mokk ñu wàcc la. balaa mokk ñu wàcc la. Mm-hmm. tontu wala loo jur ñu wàcc ko. moo tax nit dangay dem xool xam nga xaj. xaj la tudd na xaj. waaw xaj liggéeyul. te doomi xaj foo ko fekk jàpp ko. liir yi. nit ñee koy nab nabee ba ba muy màgg di ko foyee di ko defal lu ne mhm. daa nangul baa ja d'accord xam nga xaj dëgg-dëgg sefelaan du bañ day toog rek bu jëkkër di noppee dellu si mhm. moom da koy wan ginnaaw rek du ko nangoo rek sax wet wet waaye xoolal muus mhm. liggéeyu nanguwut doomi muus ngay ku ko gis sànni ji ko doomi muus ku ko gis sànni ci kër gi lay juree ñu sànni ji ñu sànni ji xaj lay ci àll ba ñu indi ci kër gi ba mu koy def kër yeeg ordonnance yeeg yëpp yëg nañ nga xam mbé mbé mbé ba mu jett ko mm. doomi mbaam ku ma sa gis fuñ sangee mbaam kenn du ko sang mm. kenn du jar mbaam di ko dundal mooy faraatu ji mm. lu tax baayam balaa jot ci moom naamam yëpp toj ak i ak i weex ba bam koy jett kon nangu mm-hmm. mooy jariñ nit mooy jariñ mais du liggéey bi kese mooy nit ki mooy jariñ ki nangu d'accord ak ki liggéeyalal yàlla rek te nangoo naa féq daa ngi liggéey mhm. waaye daa nanguwul dëgg la nanguwul dëgg la euh, li muy def ci kaw bokkul ak li mu gëm ci xolam <laughs> liggéeyu ndey añu doom waaw euh, dafa naa euh, sëñ Fallou wax na ci mais li mu mujjee wax nii léegi sax hmm. laa gën a jàpp ci li wax lépp mooy mu ne liggéeyal yàlla rek te nanguwul ba xam na di nga am résultat ndax naa féqaa ngi liggéeyal yàlla mu ngi julli mu ngi or hmm. waaye kenn du ko jëkk sax nanguwul a tax kon waaye ma jàpp ni baatu liggéey bi dañ ko ëmbe rek hmm. maanaam nangu ci dugalaale ko ci biir. xam nga liggéeyu day añu doom. Euh, sëñ Fallou wax na ko bi muy tàmbali léegi. ni euh, liggéey duñ ko fay ku ko deful. kon ndey ji nga xam ni moo liggéey moom. bu nu ëlbati ko di ko fay ca doom ja. man jàpp naa ni mën naa nekk ci benn anam kese. moo di dama jàpp ni sëy jaamu yàlla la. képp ku ca nekk nag. te defe ko ni ko yàlla bëgge yaa ngi nekkal sunu boroom. dëgg loolu li nga xam ne nag moo war soxna ci biir kër gi bu fekkee ni soxna sa matal na ko boole ko ak nangu kon mu ngi nekkal suñu borom boobaas nag liggéey bi ci boppam sax nag dañ koy mën indi ndax togg gi ci liggéey lay nekk fóot bi ci liggéey lay nekk paas bi ci liggéey lay nekk te loolu nag jigéen ji toog ci biir kër gi nag moo ko waru garam la moo ko war a def lii waru góor borom këram mooy mu dem ci biti ñëw uti lu mu dunde lu mu ko dundale ak lu mu ko wadde ak lu mu ko sànge kon loolu tamit day nekk liggéey nangu gi ñëw nag biir biir néeg boo xam ni mhm. bu fekkee ni yow loo ko sa borom kër mhm. amaana mën nga ko utal safara wala nga yombalal ko ko boo ko fexee nag ba fegal ko loolu yàlla mën na la cee fay lu gën a bari mhm. léegi nag ma ni kon naa utiliser man baatu liggéey bi rek ma exploité ko pour gën pour ñu gën maa a dégg ma ni kon kër gi man def naa ko entreprise kër gi def naa ko entreprise ma ne nag borom kër gi kon laa def chef d' entreprise léegi soxna si sëy ci kër gi mooy employé bi waaye doom ji si juddoo nag mooy produit fini bi pour que doom jooju baax nag kon dama ne responsabilité kenn ku ci nekk amu ci responsabilité. yow mi nga xam ne yaay borom kër gi di chef d' entreprise bi. il faut nga indi matière première bu baax. il faut nga muñ nga yaatu ngay jëlal tey jéggale. il faut nga nangu fay heure supplémentaire. il faut ngay joxe congé tey fay salaire bu baax. employé bi tamit di xëy waxtu di wàcc waxtu. te maanu ci alal bi bu ko fexee produit bi dana baax lool. tey jii patron yi kër gi bu ñu defee li leen war lépp. ñi fi nekk di liggéey dafa leen war lépp amaana kaddu yu fi génn wala palaatu fi génn lu lu jax lay doon en mhm. fait parce que leen lu nekk kon dafa am dafa jaar fu mu war a jaar su accès rek day mel na mu war a mel d'accord bu ma la déggee sax ci ni nga ko joxee comme entreprise mhm. tey su ma jëndee meew mhm. meew mi baaxul société bu tudd ATL liggéey ko ATL euh, Fallou Cissé moo ko moom su may wax du ma tudd Fallou Cissé meewam mi baaxul dëgg la mais dama naan ATL. li ñu defar. baaxul dëgg la léegi kon defar gi. Mhm. kay defar kay defar. kay defar nag. kay defar nag la ñuy joxañee jigéen ñi. baat bu yaatu la sax nag. Mhm. kay defar bokk na ci ki ñu sant muy defar ak ka mhm. santaane. ki ñu sant muy defar. moom itam na muy defar rek mooy dooleem ak kàttanam wante nag ca lañ ko jox rek ci la mën a defar. moo tax boobu jëkkër ji tamit di am solo dool ci doom ju baax ji mhm. sama xalaat bopp dañ ko cee génne nag dañ ko cee génne ma damay waaye dama jàpp ni ci la bokk xam nga euh, sax matar même li sëñ Fallou di wax léegi ci nangu ci biir néeg bi góor def ci am responsabilité dafa am loo xam ne kenn du ko def di mer kenn du ko def di xeex kenn du ko def di xuloo ci jàmm ak teeyu bakkat ak kaf ak maslaa lañ koy def mënoo jëkkee dëkkee dóor dëkkee saaga dundaloo mu doy woddoo boole kook di xaste te bu guddi jotee nga ni ki koy defal te nit képp la kaay ñu ànd def ko mu def ko ak xol bu neex ba da ca am lu baax mhm. tey ji Oustaz Makhtar loo mën a mën a fay si salaire loo mën a mën a loo fonk fonk fonk sa jànq bi lay liggéey ci biir kër gi nga xëy kuntaaba ko yëq ko boole kook joxoo ko ndékk jox ko sa basin ni ko paaseel ma ko bu lakkee yow mhm. kon yaakaar nañ tamit kiy liggéeylu tamit am na ci responsabilité mhm. léegi dama ci mos a waxtaan ak benn góor mu ne ma ah, ne gisuma fu alxuraan indi ma ne ko mën a daw ma daara ca mhm. waaye mën naa indi benn aay bu siiw boo xam ne chrétien yi sax mokkal nañ ko mu dugal ko fa mhm. man mën naa koo dugal rek ci man kaana yi laay kaana laa wulawo boo nekk la yàlla yàlla nekkal la mhm. xam tam boo ko fa dugal moo di léeg-léeg doom tekki te ba muy man dara baayam ndeyam du ko fekke ñu ne lii lépp ndeyam moo ko defal te pourtant ndeyam fekkewu ko de waaye nag ma jàpp ni soo dee nekkal yàlla yow da nga koy nekkal bi nga nekkee waaye bi nga nekkagul mënoo koo nekkal mhm. bi nga nekkatul mënoo koo nekkal mhm. te yàlla nee na soo ma nekkalee ma nekkal la mhm. yàlla nag moo la nekkaloon ba tax nga nekk bi nga fi nekkee moo la nekkal soo fi nekkatul moo lay nekkal kon léegi nekkatoo fi waaye nekkaloon nga ko ci sa borom kër léegi nag mu jural la doom joo ba xam ne boo fa nekkalee ku la tudd tudd la man mën naa ko dugal foofu dëgg la su ko defee tamit xaw ma lu am la jàpp naa ne lu am la waaye bu xale tey gëmee ne amul dañuy nax seen bopp am na waaye ñaar yëpp nag ngay boole dukki-dukki gi ak dang-dang gi waaye itam ak nangu ci biir néeg bi boole kook nag tekk ak jàng tontu bu baax ak jàng toog bu sell loolu daf ci am solo trop pour que ëllëg jigéen jur doom joo xam ne atarkalla dina ko dimbali ci biir dina ko dimbali ci biti d'accord am na solo ca kanam nañ leen ubbil téléphone yi mais mën ngeen a nekk tuuti alaaj Fallou seen wala Fallou Sène <laughs> ak Oustaz Birama xaw ma nu muy dikkee tey moo tax da koy teel a artu li ñu wax dama àndul ak yéen rek. Mm. waa kay loolu laa loolu laa la doon dégloo sax nag ndax gars yi. paa yi tey moom jabar yi xalaatee nii ndax. da nga maanaam dafay soppeeku maanaam jigéen moo deeti rek. Mm-hmm. jigéen la ñu nappaaje xoj ko tuutal ko ndax bu fekkee tekki doom wala njëriñal doom ëllëg ndey lañu koy laaj ci loxol ndey lay jaare waxuñu liggéeyi bàyyi liggéey ndey lañu wax kon bàyyi bu ko neexee nelaw. kon buñ nee liggéeyu ndey dafa mel ni kon ndey la ñuy laaj ay compte baay boobu bëgg ñu nangul ko ban baay la gan góor la ndax góor gu ne lañu la jigéen war a nangul ngir doomam ëllëgam jag ndax am na ci góor goo xam ne mérité wu ko waaye kon diine mbaat da koo xoj ne ko nu mu mel yow melal ni nga war a mel te xam ne jëkkër bu la fayal yàllaa lay fay te yàlla sax mooy fay boo tax may laaj gan góor la daanu ci góor gu waxoon xam ne ni diggam ak soxnaam matalu ko toppatoo ko soxna sa la ko war lépp ma ngi koy jéem te du ko muñal bu juumee sax mu tuutal ko ne ko yàq nga ko sa doom du fi tekki kon daa mel ni léegi tekki euh, doom ndey lañ koy laaj ci kaw jàpp ne daa war a liggéey ci ab liggéeyam la ñu koy natte boo déggee mën a jigéen a deeti hmm. kon mel ni ni jigéen moom bu yàqoo moom lañ koy laaj duñ ko laaj bàyyi loolu la ñuy wax de liggéey bu ñaar seq la ñoo xam ne bu laax bu yàqoo ñu laaj ko kenn. te affaire responsabilité partagée la. Birama Birama Birama indi na ko keroog. góor ñi dañuy jàppale jigéen ñi ci ñuy am ndam ci liggéey boobu nga leen di laaj. mais ndax du li yaay di gën a yàgg ak doom ñaareel ci société bi tax ñu jooyal waaye nag yaay am na ku koy yéen doom ju tiitit buy yuuxu woy sama ndey lay d'accord woy sama baay waaw ndey kenn du ko njëkkul ci doom moo tax damay bañ foofa bàyyi naagu am na ci ñoo xam ne tey sax ñu ngi santaas seen jabar am lu ñuy def moom naan ko sa doom du baax sa doom du tekki mel ni loolu dafa nekk ci loxoom. Mm-hmm. ci ngërëmam lay jaare wala ci jàpp ne nanguwuloo ko te am na jigéen joo xam ne dafa dem a dem ba gis na li muy def jëkkam santé ko yëgu ko waaye ma ngi koy yëgal yàlla. Mm-hmm. mooy da koy def yàlla tax loo tax ma ne góor googu bëgg ñu nangul ko ndax nangul na yàlla. Mm-hmm. loo tax ma ne gan góor la kon. ndax góor gu jóg rek ne tey man bu ma neexee sa sa doom ëllëg du tekki. Hmm. ndax maa yor ngërëm li maa ko yor. li mu yor ku ko jox. loolu day yomb foofu laay waxee man loolu day yomb fàllu <laughs> foofu waxee. Hmm. kon góor ñi tam dañ leen a war a waajal. Hmm. góor day jàppale jigéen. parce que am na ci góor goo xam ne tey jii noonu ko sëñ Fallou waxee euh, jigéen dana am nu mel ci melokaan. du neex a jege. da koo dégg xanaa. waaw ah. ngaa dégg jóge yoo xanaa. waaw dama ko dégg waaw. waaw parce que am na jigéen ñoo xam ne aussi. am na am na góor goo xam ne sax. neexut a bégal. il est insensible. am na góor goo xam ne bu jigéen fu jigéen amee feem góor na fa war na fa amee pexe. waaye am na góor goo xam ne day toog rek. waaw moom jàpp na ne yow say feem rek te am na feem yoo xam ne nag faaw mu fekki pexe. man foofu laay waxee. mu ne gan góor la googu góor gi ñu bëgg a yëkkati jàpp ne mooy mooy yàlla ci ko suuf mais Fallou bi nga ah, waxee jigéen di feem li bi nga waxee ah. góor waxoo feem góor wala am feem pexe la war a ah. daa xaw a jigéene wala tax ba na pexe da ko dégg rek maa ngi mi ko doon waxal moo wax déggul wala <laughs> d'accord <laughs> xam nga Oustaz <laughs> man de xam naa ne bu ñu delloo ci alxuraan comme ñu jàngat laaya ju mel ne hal jazaawul ihsaanu ilal ihsaan ak man amila saalihan mm-hmm. fa li nafsi mm-hmm. fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara mm-hmm. ndax bu nu jàngatee laay yooyu duñ ko mën a def fondement ci liggéeyu ndey añu doom waaw bu buñ ko jàngatee Oustaz Makhtar gannaaw bi ñu waxee a'uuzu billahi mina a rajim ma abbee ko ci seexu naa donte ne moomu ko <laughs> maa ngi koy nuyu naa gëj naa laa gis lool di ñaan yàlla yàlla defal la jàmm ak tawféex ñu ngi koy ziar nuyu Oustaz Mouhamed bi nga xam ne démb euh, tuuti la seetaan ci kii bi mais may may tombeek muy wax yu ama am solo ñaan yàlla yàlla yàlla defal ñu loolu lépp suñu misaanu xasanaat ñu bokk ñun ñëpp incha allah mais oustaz euh, euh, aaya yi nga tudd day toujours li ma li ma waxoon keroog toujours dañuy bëgg di jéem a génne ñaari phase yi mhm. yàlla bi muy wax loolu waxul góor waxul jigéen mais maanaam bu ñuy dolli société bu nekk dafa am lu muy gëm di ko jàpp waaye li muy gëm di ko jàpp nag toujours dafay am euh, ndëgër laay dafay am wéeruwaay bu dëgër boo xam ne dafay am fu mu koy delloo mhm. nga xam ne boo àggee ca loola xam ne mbir mii nii kat lii nii moo waral lii ay baat la man amila saalihan fali nafsihi loolu li muy firi rek mooy ku def lu baax sa bopp lu waay def boppam mhm. wa man asaa fa alayha boo ñaawalee nag loola dafay daf lay wàkk leewoon na la waaw kon kon loolu li ñu si mën a déggee mooy damay rejoindre tonton bi ñu may aaye mu nekk sama nijaay te dëgg nag léegi wax Fallou waa def galas da indi confusion rek ah ñaari ton Fallou fi ne neel galas rek. loolu nga choisir man damaa choisir wala tonton Fallou. <laughs> non ci occasion bi nii yi yaa bëgg nijaay rek waaye kii <laughs> naa nijaay nag am naa nijaay yu. Ah, yow kay yow kay doyaloo nijaay. am na doyal nijaay yoo xam ne mën na rek. moom la moom laa gën a sant. waaw léegi waaw kon galas kon nga bëgg ndax euh, kenn ku nekk woo ko na mu bëggee nga wooyee ko. Mm-hmm. kon galas li wax sànq dama ko ci fekk gis nga parfois mbir yi ñaari mbir la ñaari ñaari wàll la góor gi da ciy am wàll jigéen gi am ci wàll waaye nag jigéen gu bëgg a baaxle jàpp gëmal ne liggéeyu ndaa indi doom Oustaz Makhtar wax nga ko keroog xaw ma Alaaji Fàllu wala Galas wax na ko bu fekkoon se ne bàyyi mooy joxe cër këm gën a nam dayam la koy jox ñu ngi nettali si téere yi genre lépp ñu ne benn buur boo xam ne dafa dem ba war a génn àdduna mais loolu li nekkoon seen seen seen tradition mooy euh, kii war a doon buur bi daa am benn xeej bu ñuy samp ku ko sempi rek yaay yaay nekk yaay toog si yaay toog jal bi mm-hmm. mais ndeke amoon na soxna soo xam ne kenn xamu ko woon ndax ni ko doon toroxalee ni mu ko doon néewalee doole ni mu ko doon gannaawalee kooku amoon benn doom bu góor mais bi buur bi sampee xeej bi mm-hmm. doom yi am yëpp ñëpp ñëw kenn mënu ko buddi mm-hmm. bi ne loolu lu mën a nekk ñu ne doom bi kon buur bi kon amul soxna su baax am benn xale bu góor bu nekk ca gannaaw daan na man mii de doomu buur laa buur bi ne déet bu ñu fi jege ñu ne ko non mënu fee nekk ndax xam nga jamono yu mel noonu buur bi du am baat bu ëpp baatu conseil bi ñu ko wër bi mu duggee ñu xam ne ndekee buur bi amoon na soxna soo xam ne ñëpp fa fàtte woon nañ ko ndax na mu ko doon def mais bi xale bu góor bi ñëwee dafa ne bisimilah ci sama lig barke sama liggéeyu ndey dafa yëkkati rek xeej bi topp ko ñu ne buur amoo pexe moom mooy nekk mooy toog si jal bi kon loolu am na waaye beneen bi nga xam ne mooy li ëpp solo nit ku nekk da ngay jéem a nuru sa kilifa Seydina Muhammad mosul sonal ay soxnaam mosu leen a gannaawal waaye mosu leen seetaan ci waxin Seydina Mohamed da daan tànn ceeb maanaam kay nem daawun dundee ceeb ay daf daan tànn ceeb moom Seydina Mohamed da daan ñëw yëre yu teppeeku Seydina Mohamed da daan ànd ak ay soxnaam di dundu comme ni nit ñi di dundee mais yooyu noonu tey bu fekkee ne ñun dañ ko bëgg a dàq ndax liñ naan bumbul bañee làmbaay nangu mhm. mais dama ne gar mi pire dafay boolee mbula ak te kenn du mer mhm. waaw parce que da nga ñaari soxna mhm. tax ngay torturer kenn ki ndax am nga keneen koo koo amee ba mhm. tax nga naan ko bu mul bañee làmbaay nangu ma ne mhm. gar mi dëgg mooy boolee mbu mbul ak làmbaay te kenn du mer loolu mooy li gën a maam euh, aayaat yi dafay dafay dafay rejoindre waxu mag ñi ndax wax dëgg yàlla ku toll ni Serigne Touba ku toll ni maam Baye ku toll ni maam Seydil Hadji Malick ak ñu mel ni ñoom duñu wax baat ñu ñëw di indi baat buy weddi luy mel ni dafay tolloog ñoom la ñu wax du ko lu koy weddi waaye ñoom la ñu wax dafa ne Euh, liggéeyu nday añu doom de maanaam yàlla li mu am ñëpp la koy jox waaye du ko jox ku ndayam liggéeyul bàyyi ki ndayam liggéey kon loolu bu amee nag buñ seetloo ñoom ñooñu nañ xool seen way jur yu góor naka lañ meloon maanaam tey ñii tudd si réew mi bay naw seen i xam da ngay di ñaan la maam Fawa Diwele fàtt nañu maam Ousmane ñu naan la maam Diarra Bousso fàtt nañu maam Mor Anta Sali ñi lay limal di la limal dañuy fàtte seen way jur yu góor taxawaay yi ñu amoon nag taxawaay boobu nag xëy na كن منطول أم كمل خديجة ندخ كمل محمد نكتو في واي الله بنا كل فدي نول موفدي موفدي من يقلني واحدة هذا ما دين ما ما قوم ولا سمعت ده بني دنا موفدي نيك نيان موفدي من يخ واي على كل حال إن دال بقول نتاخوي نجوا بس دي جدنا يلا قول لواحنا نباي خل جيجين يرنتي بيدا فدين كقول نجيجيني واي نك liñ ci bëgg a wax rek xam nga parfois da ngay bañ di am euh, ñoo xam ne da leen di da ngay tas seen yaakaar ndax góor mi ngi tey jigéen di ko bundu xataal comme li Serigne Fall wax ne ko aljanna mi ngi fii te jigéen gi mi ngi liggéey léegi nag dafa am ay solution gis nga yàlla waxul kenn nga dee si toroxtaay gi gis nga bu la yàlla dugalee si sëy ngay sëy yàlla boole laa koo xam ne xam nga ne kii boo ko toppee ak ni mel sa liggéey dafay yàqu bàyyi ko fa xaar yàlla ba yàlla dina la koo xam ne bés boo liggéey si moom lu tuuti mu jur lu bari waaye am na góor ñoo xam ne ñu mel ni Birane Diop nag jigéen mënul dab seen bànneex ndax nañu bindoo moo tax Mhm. waaye nag wa an wa an tasbiru huwa xayrun lakum mhm. yàlla bu la mayee lu doy waar nga mhm. di ca bay waar da am bés nga jur koo xam ne mooy yilif képp koo xam ne boroom waar la loolu nag jigéen ju am xel moo koy moo koy bàyyi xel Ousmane Makhtar d'accord waat rek baat bi ma waxoon keroog Cheikh El Hadj Ibrahima Niass moo ne liggéeyu ndey añu doom jànguma ko ci benn téere waaye gisuma téere bu ko weddi sëriñ kër si daan wax ne liggéeyu ndey añu doom de baat la bu wolof wax ba yàlla fekk si leen euh, muy baat yoo xam ne buñ ne liggéey ne ndey mm-hmm. réalité bi moom moo koy dëggal mm-hmm. léeg bu ñuy wax man tout le temps damay bëgg ñu gën a fullaal baat bi liggéeyu ndey añu doom ci mm-hmm. laa jëm nag man ka ñu bañ a wax rek góor gi nag jàpp góor gi deful li ko war jigéen ji def li ko war day fayeeku day fayeeku baat bi dafa riche liggéeyu ndey añu doom réalité bi daf ko dëggal. mag ñi dañ daan wax ni. Mhm. koy ñaan na nga ñaan jëkkër ju weex. Mhm. ndax nga mën a liggéey. ndax mhm. am na koo xam ne ni ku mel noonu nga mën a amee ku baax. kuy ñaan na nga am wayjur wu weex. donc nga am jom ca ngay mën a rafetale. am na barke. waaw léegi kële di la jàppale sax ku ne da lay dimbale pour yombalal la liggéey bi. kon foofu foofu oustaz am na fi xalaat. parce ma daaneel fi ma doon waxee noonu. maanaam pour wane ne yàgg na. bu ñu jëlee sunu exemple ku mel ne Seydatuna Khadija. Mhm. radiyallahu mais doy na sëkk exemple ñu jël rek liggéeyu ndey añu doom. Mhm. ñu ne kan mooy Khadija lan la def. ku jël alalam yëpp jox borom këram. Mhm. jël pouvoir yam pouvoir yëpp delloo ko. wàcc lool te nekkoon jigéen ji ëppoon dara màkkatal mu karam. tey lu ko jural ku ñaan sërif mooy sama. mooy sama léegi ma eh, oustaz bu ñu doon wax rek xam nga dañu ne liggéeyu ndey añu doom. mais ki nday liggéeyal kan la xam nga ñu ngi ko bëgg a jël ko jëkkër mais tuddul kenn dana rek liggéeyu nday añub doom fu nday liggéeyee ak kan la liggéeyal ndax nday liggéeyalul doom ci bàyyi doom nga xam ne lii da koy def ngir bëgg barke bi di dem ci sama doom waaye bu ñu ne liggéeyu nday añub doom rek mu mel ni kon bi ci des mooy sax waa ku liggéey ba noppi amoo doom nag liggéey ba liggéey ba noppi amoo dem jëlal ki dégg. salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. Mamadou Matar maa ngi lay ziar bu baax a baax. ñu ngi lay delloo ziar. Moustapha mbay la 313. Moustapha na ngeen def. ñu ngi sant bu baax sànq maa ngi bëgg dugg lool sa émission bale ndax amoon na solo trop. Mhm. ndax bu ngeen di euh, l'enfant de la rue bi ngeen ciy wax dafa amoon solo ma bokk ci mbir yi ko dox di ci yàgg di ci liggéey. Mhm. mu amaloon ma interloc. Hmm. waaye li ngeen ci wax rek dafa tënk lu bari. Hmm. ndax nit moom dafa am mbir yoo xamante ni ñun Sénégal dañ ko baax nga waxee ñu ne de la rue jiñ ko taalibe ñoo xam ne ñu ngi ci rue bi te nekkuñu ay ndongo daara. parce que li ci ëpp da sax yow sa bopp sa xol dafay jeex da ngay wax boo xaasee tey jii lu tax ngay yàlwaan da nga naan sama baay daa dee wala sama lee dafa dee te or que loolu sax dafa dul am. ñu leen teg ci TV ay nit ñu nit ñoo xamante ne dara jotu leen la. Mhm. waaye jàpp nañ ne bi fi mu ne nii lan cay mën a am ak la cay nekk léegi comme ni ko Oustaz doon waxee sànq ci doon waxee di ñuy loolu moo fa ne. genn wàll gi yëpp ay seen doom la ñuy xëy rek teg ci tali bi pour sànq leen pour yàq deru ndongo daara wala yàq deru diine. Oh, d'accord looy wax ci euh, liggéeyu ndey añu doom. liggéeyu ndey añu doom nag da ngeen ci wax wax bu am solo ndey dina liggéey lu baax ndey doom añu leneen. parce que yar la doom boo ko juree biir kër ngay am noo melokaan booy mele ci biir kër gi yow miy sëy soo ko seetlul waajuram sa doom mën naa tànku parce que ñaareel li ci doom yu bari copie wuñ seeni waajur de te nit ñi dañoo ko ji liggéey ndey añub doom rek parce que la say nekk mooy waajur bu góor bi ñaare moom mu liggéey yoo xamante ne ndeyam ndeyam mënu koo faye te pourtant dañ koy jii liggéeyee rek du ndey. Mhm. góor day liggéey luy tax doomam sànku ëllëg. parce que téyewul na mu war a téye nda yaayu yaayu yaayu xale doom ja téyewu ko ko war a téye ndax doxin bu ñaaw. Mhm. da ngay gis góor bu te jabar yore ñaari jabar tax ñaari ci biir kër gi da nga gis jeng day am. kooku tey jii bu doom bi di copier ci loolu moom am na nu muy mel noo xamante ne du ndeyam moo ko mel bàyyi jëla beneen bi tamit jigéen ñu baree ñi di sëy nañuy sëy seen i biir kër la koy waral mooy lan ñaare benn mm-hmm. yow la lay tax a dugg ci biir kër gi du ñëw sëy da ñëw pour seet c'est pour xool loo fa am ak loo mm-hmm. ñu ci bari noonu la ñuy dox ci biir kër yi jigéen ñu day pour pour yàlla tax dañuy sëy ngir luñ fa am d'accord jërëjëf waaw ngir luñ fa am kooku est dina fa jur doom ju baax mm-hmm, jërëjëf kon ñu ngi gërëm di rafetlu liggéey asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. mu Moustapha ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm. liggéeyu ndey añu doom añ bi kan moo koy yekk. Mhm. ndax baay ji mooy joxe barke bi wala yàlla. mooy faye fàllu seen wax na ko mais mu mat a bàyyi xel. mu nga ñu ci baat bi liggéeyu ndey añub doom. ñu ne kan lañ kan liggéey bi ci kan lañ ko jëmale. Mhm. bàyyi la liggéeyal. wala ndey lañ liggéeyal wax nag dana siiw ba nga xam ne bu ñu demee ba ne ay kilifa dugg na ci du tee man li ma wax rek laay wax li ma xam rek laay wax man man du may aju ci kenn ci wax ci xam-xam nii du ma ci aju kenn dama teg laaj liggéey yu ndey añub doom ku ne ku ko bëgg a def ne ndey lañ ko ndey moo ko liggéeyal baay yaa ko nekku ci wax ji ku ne ndey lay liggéey doom lay liggéeyal nekku ci ñaar ñëpp la war a mën a liggéeyal mën nga liggéeyale doom ci baay ci nangul ko di ko defal lu baax ak yiw mm-hmm. te liggéey léeg-léeg du rafet mm-hmm. te bu fekkee liggéeyu ndey añub doom la mm-hmm. waa doom moom li mu liggéey fu mu jëm moom mi ko liggéey lu mu am ci liggéey bi ndax añub doomam rek ana reer ba ana ndékki la ndax benn jëfandikukaay la jël ci li ñuy jariñoo kon loolu mooy liggéeyu ndey teewu la dem wuti doyul am deet doyul ndax ne waxul ne mooy ab dundam dane moom lay añee te am na ñooñ ku xaar seen ndey bu ñu xaaree seen ndey danañ deñe waaw dof ba daane ci mbarsi bi di wër rek ba yàgg mu ne oh waaye man li may wër sax sama yaay sànni na ko sama yaay wàcc na ko booba du ma ko gis te doo jiital doom mën na ci bañ am ba bu ñuy dugg ci sëy ñu naa liggéey ndey añu doom déedéet wutal yàlla soo amee a yàlla amaale lépp dëgg la am de dëgg la kon doo ñëw di liggéeyal sa doom ba sa bopp te am na koo xam ne nee na ma ngay liggéeyal doomam la ci jublu léeg-léeg nga gis naan jur naa fay doom ma ne ko waa bu dee doom yàlla fa bar yow ba amuloon doom dem <laughs> loo fa defati liggéey amul njëriñ ab sëy du doom du bàyyi euh, jabar ci ci kër sëy mhm. ci sey yàlla moo la fa yóbbu woon yàllaa nga fa mhm. ñii amuti doom kenn gënu leen mhm. waaw ana seen liggéey dañ koy sànni yàlla da leen di fay sax ah buñ ko sànni buñ ko fayee nag doom jaanamu dañ koy sànni duñ ko jëriñoo d'accord loolu mooy lu la yàlla may gërëme ko sa ndey bañ du ko dindi ba ba yóbbu ndey foofu ba yàlla moom am kañ lañ koy gërëm <laughs> te dañ ne li la yàlla may fa yóbbu nday la nekul lii la yàlla may yàlla nga koy jox. lii la ndey may nag nga gërëm ci ndey gërëm ci yàlla mi la booleeg ndey. dafa am ko bind ci internet bi ñu ne day day gis léeg góor ñu am euh, doom sàggane leen. yaay ja nekk cay sonn ba doom ja xëy liñ naan teraangay àdduna mu yor ko ci loxoom. baay ji ñëwaat wane ne sama doom la te ne woon na ko bi muy nekk xale. Mhm. nooy jàngatee loolu. Ah, xam nga Baye de. wax thème bi ñuy waxtaanee. waaw ak bàyyi moom ak ak loolu moom lu ma koy jàngate mooy di bàyyi moom euh, wax dëgg yàlla la mu def séq ko ak soxnaam ba am doom góor def na ko ak soxna yu baree bari te amu ca doom kon soo ca amee doom am cëru Baye ba dara du mm-hmm. xam def na ca la war. Mm-hmm. moo xam deful la ca war. waaye bàyyi la te dara du dindi Baye ca. Mm-hmm. su ëllëg ñëwee tamit mu ne sama alal la na ma koy jël itam ci sama xalaatu bopp. am na ca sañ-sañam xanaa kay daf koy jëlee gàcce waaye ku ko xañ itam xañ nga ko ak xam loolu sama xañ sama xalaatu bopp la waaye euh, par rapport ak li nga wax ni léegi teraanga àdduna euh, ak thème bi nii dafa sensible moo tax foofu laa bëgg a dugg am na tey ku ñuy seetaan koo xam ne kii yàppar jàkk jàpp na ni jàpp na ni ndeyam sonn lool ci kër baayam waaye wërsëgam demewut noonu te li ñuy jàpp Sénégal li ñuy jàpp liggéeyu ndey mooy ko am wërsëg Mm-hmm. feccal ba ami million mm-hmm. daasul ba ami million mm-hmm. wuru jël dafa lu la neex agre agressel mais daal tant que am nga xaalis mooy tekki nga mooy tekki nga sa ndey liggéey na toujours ñu gis ko tekku ci télé bi tekki na ndagara walla ba xolam sedd nekk ci lu kenn gërëmul aada gërëmul ko diine gërëmu ko waaye nag comme am na ci tur am na ci teraanga mu taxaw ni lépp sama ndey moo ko liggéeyal te ñëpp dañ koy jox ñu ko waaw yow de sa ndey liggéey na léegi nag ki nga xam ne moom xëj na yàlla boo yore wërsëg di ko jox ku ko neex nit ku jub la nit ku baax la waaye moom xëj na wërsëgam demewut noonu est-ce que du am frustration que ne man ndax sama yaay liggéey na ah, kay maa ngi dalal xelam ne ko tànk nag mu ngi nit mu ci mbaax su waxee ñu déglu ko su jëfee kenn du ko xepp na ko wóor ni ndeyam liggéeyal na ko parce que nag nañuy bañ a juwaatle ñaar yu bokkul mbaax ak wërsëg jotewuñu dara laaloo wuñu wërsëg seexluwul ku ne mën na am wërsëg mbaax nag dañu mag ba dafa xoon ne alalu yàlla xarit ba la koy jox xarit na jubóog suñu borom ba mu jox la ko kon yow da góor góorgóorlu ci sa bopp dama ne même sax liggéey bi ku sa yaay am lu mu ci sooxe ba sentir nga ni xat na am lu mu sooxe am na taxawaay boo am ci sa àdduna kenn du ne cim parce que nag oustaz wax ko léegi nit ki itam dafa am responsabilité boppam loo xam ne du ndey du bàyyi moo koy moo ko moo moo koy defal moom moo ciy taxaw kon loolu itam nañ ko bàyyi xel leneen li moo di oustaz da ngay gis benn jigéen surtout mag ñu njëkk ñi am fukki doom fukki doom. Fallou ngi lay dégg de am na ci ministre. am na ci député. mais am na ci agresseur. am na ci naan katu sàngara. te pourtant nag soxna si ñoo bokk ndey ak bàyyi te ci génn góor gi la sëyal ba am ci doom yooyu yëpp. nuñ koy fire il faut que ñu bàyyi. est-ce que nangu du taxaw foofu. waaw nangoo fa ne. waaw waaw waaw na fukki doom mën nañoo ñëw. dëgg la juróom ñaari ñi nga nangu nangoo ñaari. dëgg la wolof mën na koo firee noonu. dëgg la waaye xam nga da nga wax léegi lu am solo. Mm. da nga wax léegi ni nangu ba moom fa muy amee. Mm. seede du ca bari. Mm-hmm. Eh, du ca bëri li nit ñi mën a gis rek. waaye jëkkër mën na ko seede waaye jëkkër waaye jëkkër jëkkër mën na ko seede. Mm-hmm. jëkkër na ko seede dañ ma ci nekk c'est benn anecdote. ñu mm-hmm. ñaari ñoo xam ne dañoo toppante. Mm-hmm. waaye rakk ji. lu mu song rek daan ko. lu mu yóotu rek jot ko. waaye mag gi moom dara. benn bés nag bu jaaxle ñu wax ko yaay ji. ne ko man day dama gis ni. wax dëgg yàlla sama rakk ji lu mu bëgg rek am ko lu mu ut am ko. te yaa ñu bokk jur te gis naa la itam ba ma ma gimmee ba léegi yaa ngi sonn di def sama bànneexu bàyyi. dama noonu maa yóotu dara mun ko toogal ma wax la. ñu ko yow bi ngay judd dafa fekk may sa baay jël ma may seet. Mhm. ma nekk jongo ba rafet lool lu ma bëgg ci moom dama koy santa toog ko am. Mhm. kon nangu lu ma ko woon liggéeyu lu ma ko woon bi ngay judd yow. Mhm. bi nga juddoo nag laataa ngay fer ba moom mii di juddu fekk na nag may jege mag muy waxtaan ak man. ma wax ma lan mooy sëy. ma ma ñor. ba wax lan mooy sëy. te anam yooyu laa nekk ak sa baay ci biir néeg moo tax bi ñu ci juddoo. nangu dikk na nangu dikk na. d'accord moom moo lay ëpp wërsëg. <laughs> moo lay tane. anecdote kon moo tax li ngeen wax ni. dinaa ko nangu. d'accord te ca nangu ba la. kon nag damay delluwaat nag sama waxaat bàyyi nag. kon ñuy jàppale ndey yi nag. ci liggéey bi ci liggéey bi surtout nag ci nangu ci biir néeg ba. Mm-hmm. am na koy soxla ci ngoon gi neexal ko ci suba gi. dëgg na ba ngay xëy. Mm-hmm. na yokkal dépense ba. Mm-hmm. jay ku ni ko puudar bi rafet na. teel a la wàcc ñëw teel a sangu indi say pexe su defee semam ngeen dajal loo ci jur mu baax. macha allah <laughs> waaw bul jàpp ne moom dong nga war a. sang sangu. moom dong nga war a cuuraay waroo laal ah? parfum am ah? na man damay wax ni man damaa gëm baat bi professeur Fallou Cissé euh, ak niñ koy jàngatee mais liggéeyu ndey añu doom aada dama ko gëm mais dama koy layal man ci diine gëm ko li tax ma ne ama jàpp ne aada dañ ko doon wax baat bi boobu nit ñi ñoraguñu ci diine nga naan leen ku def lu baax yàlla fay la jox leen ay texte man amila saalihan fali nafsi yi nangam euh, ku topp sa jëkkër ajjanaa ngi lay xaar boo jullee woor yooyu boo ko waxee jigéen ci jàngul diine da koy desal ginnaaw mm-hmm. mais boo ko joxee loo xam ne da ciy teg bëtam mooy ku def lu baax ba yàlla wan ko résultat wu def lu baax mhm. su boobaa kooku loolu day nekk lu muy làmbu daj mhm. doo ko indil aaya doo ko indil xadis mhm. mooy képp ku def lu baax jigéen ju muñ naqar boobu coono boobu xam nga tey kër yu bari comme ni ma ko waxee woon keroog bàyyi day dee bàyyi fi yaay mooy gën a yàgg doom yi lu ci bari lu ñuy tuddee doom ya ca la ñuy gis ci bët yaay ja moo koy gën a yàgg nga wax baat bu ama am solo te loolu dama koy fàttali lu bari ci biir bu ñuy waxtaanee doom ju baax ak ju euh, tekki ma firi man baatu tekki dama ko tënk ci jub doom ju jub dëgg la ku am doom ju jub tekki na su amee alal tekki na su amul alal tekki na bu siiwee tekki na bu siiwul tekki na na jub wala mooy boo déggee ñu ne wuub ca mbedd ma mhm. boo doon nelaw da ngay wàccee say rido mais doone mbaadu sama doom ja kookoy doom ju baax mooy doom ju tekki léegi nag résultat boobu yàlla di delloo am na loo xam ne nii bu fekkee ne yow dong yow yaa ko jëf muy lu bon mais lu bon di du yem ci yow léeg-léeg wala taziru waziratun wisra uxra am na bàkkaar boo xam day laalaale ki ko def laalaale ñeneen mooy wa taqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaassa am na loo xam dafay laalaale keneen ki nga xam ne jëfu ca ñax mm-hmm. googu dana lakk gu tooy am na loo xam ne it amul jarul euh, ñu koy daw ah. maanaam bépp jigéen ju def naka sudul noonu ah. ci sëyam ah. dana màtt loxoom wi cax dëgg la góor gu toroxal soxnaam ci sëyam doom yi léeg-léeg dañuy vengé wu di wan seen baay ne ko yow yaa toroxaloon sunu yaay mm-hmm. ñu dem féetewoo ak seen yaay baay ja naqar bi mu tegoon seen yaay doom ja di ko ko teg mm-hmm. lu di réalité daf koy dëkkal dëggal donte léeg-léeg am doom yu jubadi yoo xam ne ak njubadi mu mhm. leen yóbbee ci lu mel noonu loolu exception la ci biir kaay mhm. mais ku def lu baax gis ko man a amila saalihan fa li nafsihi mhm. yaatu na xam nga <laughs> jël ñu jël abi gis ko la wax dafa ñëw waxul ma jël ko joxe ko keneen joxe keneen abi dafa ñëw ñu jël abi ah abi oustaz ngi ziar ñu ngi teeloo ziar naka yi tey ah yow da tem bi ma moom liggéeyu ndey añu doom te yow taarika la <laughs> liggéeyu ndey añu doom ah liggéeyu ndey bi gën a mag de mooy nga jur doom bu jub doom bu jub waaw ah ndeysaan koo xam ne dafa tegu ci yoon léegi dañoo jàpp ne liggéeyu ndey daal ku tekki la rek xaalis mhm. am na ñoo xam ne seen xaalis bu ñu la waxee fu ñu ko jëlee doo leen ñee tekkee de xaalis am na ñoo xam ne tekki doo nga tax ñu am xaalis non tekkee di am na ñoo xam ne tekkee di waaw am na ñoo xam ne sax buru xaalis doon tànn du ñu am xaalis bu doon xaalis day tànn fu muy dem du dem si ñoom. d'accord abi benn waxtu lan la ñuy li ciy gën a fës bokk na ci taskatu xibaar wala sax ki fi nekkoon taskatu xibaar di Momar Seyni eh, Ndiaye eh, denc nañ ko ca këram gu mujj ni ki tey ji eh, ci suba ci teewaayu kay naataangoom taskati xibaar ak ñenn way politique ak ñenn ñi nga xamante itam ay kilifa diine lañ daanaka ca foofe seede gi benn la ñëpp dañoo ne rek nit ku baax la woon te mu amoon taxawaay bu ama am solo ci. réew mi ñi ñuy téye lu yàgg ci kaso yi te duñ leen gaaw àtte loolee nag bokk na ci lu naqari lool askanuk euh, Sénégal ba tax na sax ñoom ñu ci rek sàkku ñi nga xamante ne ñoo ŋànk wàll wi fii ci réew mi ngir ñu xoolaat bu baax loolee ndax nag dañoo jàpp ni bokk na ci luy feesal kaso yi ci réew mi kuréel gi boot euh, étudiant ya ca maatam ñooy ñaawlu li leen seeni kilifa yi far ci nguur gi dul jàppale ñoom ñi nga xamante ne ñoo bokk ci boobu boobule mbootaay dañoo rek euh, daal di gis ne seen kuréel googee jamono ji dañoo am ay jafe-jafe yu tar jëm ci wàllum koom li ni mel tax bu mënuñoo jàppale seen rakk yi nga xamante ne ñu ngi doog a am bag tey doog a ñëw euh, ci daara yu kawe yi ba tax na sax ñooy sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall ngir rek mu dalal leen ngir ñu mën koo jooytu li leen naqari mu wut ci ay saafara ci wàllum diine juróom-benneelu édition bu festival international bu ñu jagleel zikr dinañ ko amal fukki fan ak ñeent jàpp fukki ndakaaru ci atum ren ji nag daanaka amal nañ ci ay coppite yu am am solo lu ci mel ni que def ay lël wala ay kuréel yu nga xamante ne dañ ci fësal lu fi Cheikh Oumar Al Fouti wu Tall daal di bàyyi waaye tamit dinañ ci tekk benn film bu nga xamante ne si dañ ci waxtaanee jaar-jaaru Serigne Saliou Mbacké foofee ca musée des civilisations noires oustaz li ni mel moom lañ nara rek faram-fàccee bu benn waxtu jotee incha allah. incha allah ñu ngi lay nekk benn waxtu ak jàmm. jërëjëf jërëjëf bi la bu une jotee na ñëpp nekk di ko bàyyi xel ci euh, lan lanu ñu gën a nar a gën a yaatalal ci euh, xibaar yi euh, Alaaji Fàllu Seen lan mooy sa ndénkaane. waaw liggéey ndey añu doom lu am la. waaye nañ tey ci añ bi. ndax léeg-léeg mu neex loolu tabaaxul baaxul. mooy ndey joo xam ne daam xaalis bi doomam màggee. doom di jàpp sama ndey laa amee alal ku xamul danaan ah kii de tekki na ndax ndeyam dafay bàyyi xaalis wala ndeyam daa féex. Mhm. kon añ bi ñuy wax coonoo koy joxe. boo dajee ku weex gëmal ni ëllëg dina baax waaye damay laaj ndey bu fekkee da laa añal yow doom amal jëmu fexe wut ndékki ak reer ndax dund bi moom du añ rek waaye añ boobu yi tamit damay laaj ba xam ci àdduna la yam wala añ buy wéy la ba fële alaxira <laughs> d'accord laaj bu ama am solo la. Oustaz Birama man de xëy tànk am na benn laaj boo boo boo boo dugal ci waa ji bind si internet bi. boobu laa bëggoon a jeexalee. Hmm. mooy baay bi doom baay bi geddoon doom ji. dama ne bu doon bitim réew yeneen réew yi réew mu nekk ak na muy dawale hmm. mais bu dee Sénégal li ñu xam mooy doom du toppante ak waajur. Hmm. ndax wax waaw ak diine. ndax wax dafay dem ba mujj gi maanaam li ñu naan mag dafa yàgg yàlla. waaw moo tax daal li am solo am solo ndax alxuraan sax daf ne say waajur loo man di lu mu mën di mel na nga rafetal jëm ci ñoom. lu dul daal bu ñu demee nag ba yà ba bëgg yàq sama diggante ak yow sax. bu leen topp. waaye nag na nga rafetal sa diggante ak ñoom. waaw kon loolu kon loolu li muy firi mooy waajur bi. même bu fekkee dafa sàggan ci la ko war. doom bi moom na rafetal digganteem ak moom kon yàlla waxul na nga topp. mais na nga rafetal ndax ku màgg ber sa yoonu bopp waaye yoon wa loo ko ber ber ber. nga bàyyi xel ki nga xam ne nag wax dëgg keroog ba nga juddoo ñëw na ne ko ndokkale ndax leneen loo ko mën def dafay jur gaañ oustaz li may jeexalee mooy euh, فرعون امونا سخنا سخنا تي في اوزينا يا رب ابني عندك بيتا في الجنه فرعون بودي نوح امونا دوم yàlla ne ko innahu amalun ghayru saalih bu dee luut amoon na soxna soo xam ne yàlla daf ne ko kooku bokkul sa waa kër kon li am solo ba am solo mooy gis nga liggéey dafa am liggéey bëccëg ak guddi ki ngay nekkal am na nit Sénégal dañoo mën a gërëm jabaru jaamur te loolu kenn du ko def soxna diw sa ku ku neex a yore la musiba la kenn du ko wax loolu kenn waru ko wax ndax soxna jaamur bàyyi kookub jaamur léegi nag bu ko defee kam nekk ak ñoom ñaar la ñuy dund ñoom ñaar ñoo ko xam beneen tomb bi am ne dafa dafay yàq liggéeyu Sénégal mooy liggéey Oustaz Makhtar mhm. nit dana nekk ci këram liggéeyal borom këram diggante ma yàlla liggéey na ko diggante ma borom këram liggéey na ko waaye liggéey nañ ko ba liggéeyam yàqu mhm. loolu tam réalité la si réew dafa am am na ñoo xam ne liggéey moo yàq seen liggéey loolu bu ñu ko waxee bu ñu ko waxul <laughs> waaw li maanaam mystique laa bëgg a wax liggéey moo yàq seen liggéey loolu da ngay gis jigéen Ousmane Makhtar da ngay dugg ci gox xam nga maa ngi dañ naan la booy takk soxna laagal ndax yaayam saykat la hmm. dafay am mais am na ñoo xam ne leen di nu mu tuddati maa ngi jégalu xam naa su ma génne tey ji temps bi naa ko lool na am na solo mayte baal ma tonton Pa Omar waaw ah, sama ndénkaane mooy damay ànd ak euh, yow bu baax ak ñi fi toog yëpp ci dëggal baat boobu liggéey ndey añu doom man de wax dëgg yàlla gëm naa ko maa ngi digal sama doom bi jigéen bi sama sœur yi ak képp kuy soxna rek nga gëm ko ndax da lay soñ ci ab góorgóorlu. te yàlla tax beneen bi nag itam nag nanu jàpp ni eh, tekki fiñ ko teg senegal ak fi tekki nekk bokkul. Mhm. ab jullit dafa gëm ni bu faatoo fekk takkuñu ko dugal ko ci biir bàmmeel tekki ko tekkeegul. Mhm. kon kenn du tekkee àdduna biir bàmmeel la ñuy tekkee. Mhm. te nag ku jurul doom ju jubut nag su amee milliard boo yaakaaree ni tekki na soo demee ak moom yow ma la xam di nga xam ni tekkiwul. <laughs> man nee naa même milliards yi sax euh, bu dee teeg bu dee euh, liggéey bi dafa am njuuj njaaj gu ci dugg. Mhm. triché. Mhm. milliards yi dana xëy am fu la dugal. wallaahi dëgg la <laughs> waaye noo ngi tàggu mbokk yi rek ba beneen mhm. di wax rek ni bu fekkoon ne tey damay nangu ne liggéeyu ndey añub doom. ma ne la waaw. nangu naa. waaye dese nga ndékki dese reer bàyyee ko yor kon. ndax gannaaw ñoom ñaar ñoo fa newoon. nday joxe na la añ. añ ak reer. Ah, ndékkee ah, loolu. bàyyi ko yor. jigéen liggéey na ba noppi dégg baat bii. moo ko yàqal liggéeyam. ndax boo liggéeyee ba noppi ba doom taxaw nga dëddale koog baayam. wane na ko maay sa ndey maa la ëmb juróom-ñaari weer. ba ngay ñaati juddu nag. baaya la yoroon. ba ngay ëmb baaya la doon faj. waaye ku toog a baay bokk na ci liggéeyal sa doom. Mm-hmm. ne ko. moo tax liggéeyal sa doom ak liggéeyal jabar ba jëkkër bokkul mm. eh kii kat mooy suñu bokk kilifa ah, man kat soo jubawul ak man du ma mën a ànd ak yow mm. waaye beddi sa doom wan ko sa baay sa noon la mm. sa baay mooma lii dalaa avant noon ne te nga la fàttaliwu la avant ngay juddoo xam ne yow sa liggéey boobu lu mu rëy rëy li nga ci gën a réussir mooy noonale say doom ak seen baay am solo musiba mu rëy la ah, waaw ah, jigéen ñu bari mën nañ ko loolu du liggéey <laughs> loolu da yàq liggéey kooku yàq <laughs> liggéey boobu <laughs> liggéey la de kooku bul détaillé bul détaillé non non dafa am solo heureusement dafa ñu sëñ Fall waroo woon denc boobu ba di fin bi sëñ Fall waroo ko woon denc ba di fin bi boobu dafa waroon teel a ñëw ñu commenté parce que dafa am solo maanaam yow da nga da nga boobu dafa am solo waaye yow yàq liggéey nga jeexal ah. kooku yàq liggéey doom la waaw mais bu boobaa loolu loolu dafa bari lu muy am loolu bu ñu demee dañ laa sa day ko liggéey wallaahi dëgg la dafa bari lu muy am dëgg la moo lay dugal ci sa bopp bi ba encré ko bari na xale yu wëndeelu yu bari bari loolu leen tàggalee seen waajur ah. ak nit ñi defee ne ndey rek rek de ci kanam mm-hmm. ndey am na lu am solo ndax moo daan nampal mm-hmm. moo moo moo mm-hmm. waaye deret ji ko sos nag ci la d'accord ñaari waajur lañu war a fonk liggéeyu waajur day añu doom su boobaa yar baag li kii waxoon am na solo ak defar ga am na ko ko waxoon sax ki woote la kon liggéeyu waajur ci la ñuy xaar doom tekki Matar tekki nga ko bat bu gàtt mhm. waaye la ma ko 2STV ba ñu nde am na koo xam ne am na doomi commissaire mhm. doomi ministre doomi juge laaj ma tekki nu ñu koy dañoo tekki ñu tàccu mhm. ma ne ko juge buy lekk ger tekkiwul dëgg la lay am de la commissaire buy lekk ger tekkiwul dëgg la euh, commerçant buy lekk riba tekkiwul xam nga tekki jullit mooy lan ki ñu takke sa ndey ca jumaa ja ak mhm. jàkka ja mhm. nga juraat ko ko mën a yor mhm. kooke mu jur ko tekki macha allah <laughs> jërëjëf euh, alaaji Fallou Cissé jërëjëf euh, Cheikh Fallou seen jërëjëf euh, tonton Pa Omar Dieng jërëjëf Oustaz Birama Bassine Diop jërëjëf mbokk yi doon seetaan eh, aka baax <laughs> lool magi kii baax lool sax <laughs> ko defee njëriñu waxtaan bi rek mooy kenn ku nekk jànge ci góor gi bu mu toog rek naan jigéen jee war a liggéey man ma tëdd ndax kat euh, lu wolof di wax ne lu waay ren di sa loxo lay naaj. Euh, Alpha Camara yàlla na ko yàlla yërëm mu ne nijaayam moo daan wax naan bu ca naajcee ba noppi ci ay mbokkam la koy wiccax kon it boo toogee naan say doom lañu ah yow tamit say doom la euh, buñ tuddee yaay ji yow tamit dinañ la tuddaal ndax dañ naan doomu diw ji la ba tax na na ñëpp tàkk takku waaye daal bu góor ñi bàyyandikoo jigéen ñi nañu liggéey xam ne yàlla yàlla gëmmul nelawul du jaawale mukk jëfu keneen ak moromam Euh, bu kenn découragé nu sa jëkkër manti mel liggéeyal nangul surtout nangu gi defal ak yéene ju sell ci la ñuy daanalee màggal giñ bàyyee ko poroxaan maam jaara bi muy dem lan lay yóbbaale yéene damay ami ku baax maanaam gisul dara kenn kuy taxaw ci kanamam xam nga jaxasoo demaguloon euh, kër maam moo Anta Sali ba xam nu muy mel weex ak ñàkk weex pour muy xam lan lay liggéey mais dafa yóbbaale pas-pasu damay amee lu baax c'est important nangu la ji dafee yàlla yàlla dimbale ñu ci loolu mm-hmm. Mm-hmm. Euh, dund dëkk dëkkuwaay waru waaye ko daal yàlla na yàlla yombalal nu ko fa nu gudd ànd ak wér-gi-yaram mm-hmm. yàlla defal na ko yàlla yombalal na suñuy càkkutéef yëpp fajal na suñuy xaajo yëpp defal nu jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira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 ولا ادنا ديجيني داك في صح والله ما نسا بوب ادنا كين في صح كين في صح الله اكبر الحمد لله